télé jumaa ji mboolem télé rajo yi nga xam ne ñu ngi toxal waxtaan wi ak sit yi ak euh, mboolem plateforme yi am ñu ngi leen di nuyu leen dalalaat di wéy ak yéen rek ci jotaay yi nga xam ne lañu baaxoo amal at mu jot ci koor gi ci bisi koor gi yëpp saa yu ñu jullee ajuma ba ba bu ñu jullee tàkkusaan ba ñu dog daayatu muqaddama xidma di ko amal di ci ànd ak ay boroomi xam-xam di def ay waxtaan yoo xam ne da koy séddale ci ñetti pàcc am bis yoo xam ne dañ koo jagleel ay muhadaraat ay exposé yoo xam ne day aju ci benn domaine boo xam ne dañuy woo ko nga xam te mate ko mu fàttalente ci ak euh, jullit ñi bis yoo xam ne dañ ko jagleel ay laaja ki tont ay fatawa am bis yoo xam ne nag bisi jël bind la ay duruus ñuy jël benn tomb boo xam ne yitteel na jullit ñi ci seen dund bis bu set woo koo xam ne xam na ko te mate ko mu waxtaanee ko fàttali ci ñi ñi fàtte woon xamal ñi xamutoon tey nag bokk ci bis yooyu ñu ciy dalal suñu mbokk sëñ Ibrahima Kebe nekk boroom xam-xam bu jàmbaare lool boo xam ne ci jàng jàngale ak yare ci lay eh, yëngu muy waxtaanee tey nag ñaari tomb yu am solo tomb yoo xam ne yitteel na jullit bu ne ndax dafa aju ci nekkeenu njaboot gi dafa aju ci gone bu juddoo ba keroog muy màgg li war ci moom ci ñaari mbir muy ñaari tomb yu aju ci nàmpal ak nu ñuy yore gone bariwaan lu ñuy dégg diw da doon ngoro diw ñu dem ba ci digg ba ñu ne kii kat mënoo koo takk ndax kat diw mi yaayam wala nangam nàmpal na la yëfe jaare foofu yàqu ñu dégg yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ci benn xadis naan lu bokk ndey wala bàyyi mën a araamal ci ab diggante nàmpal mën na ko araamal waaye loolu du ñàkk am na fu muy yem bu ko defee bu ñuy wax nàmpal lan la lan lañuy ñuy tuddee nàmpal lan mooy tax ñu jàpp ne diw nàmpal na diw bu fa àggee moom nàmpal na ko ndax bu ko nàmpalee benn yoon doy na wala ñaari yoon wala ñetti yoon wala bu muccoo benn yoon far bàyyi baax na bu dara génn bu génnut ndax baax na ak loola bu amee ba noppi tamit lan moo cee mën a toftaloo ci ay diggante yu waroon a mën a am te du far am wala yoo xam ne jàppoon nañ ne wërta am te nekkati yoo mën naa am ndaxte mën naa am dañoo dégglu woon dëgg-dëgg lan lañ jublu ci nàmpal ndax loolu nàmpal ku toll ci nàmp la wala ku ku fer ci la bokk yooyu yenn la ci tomb yi nga xam ne Cheikh Ibrahima dina ci ñëw dana àgg dana bu noppee tamit dana ci tegaat tomb boo xam ne dafa aju ci wàllu xadaana xadaana nag mooy yor wala yar xale boo xam ne dafa toll ci ñu koy taxaw xale ni ko lislaam tërale euh, mooy ne bu juddoo ba keroog muy mënal boppam mooy ba keroog muy daa war a nekk ci loxo loxo yooyu nag yenn jiitu ci ndayam ak baayam waaye lislaam tëral na ko tëralin woo xam ne bu teem ndayam ak baayam fàddoo tamit na ko teg ci loxo yoo xam ne du du tumuraanke mukk bariwaa na lu ñuy dégg jafe-jafe di am nit koo xam ne baayam ak yaayam dañoo nekkatul sëy ba dafaa nekkatul wala boog dañoo bokkul fu ñu nekk ñu naan doom ji kan lay fareel nga dégg ci léeg-léeg ñii di dem ci tribunal yi ñii di xëccoo ñi ñu naan maa war garde beeg nangam bu dee na dëkk yoo xam ne dañ àgg ba ci naan sax doom ji diw moo ko yor wax ko yaay ji wala bàyyi ji tere kenn ki mu fay dem lu dul bis sàngam wala sax tere ko ko far ba àgg mën nañoo àgg ci ne ko kutumbali bi mu dëkkee li ko wër ci nangami kilomètre bu fa loolu lépp nag ay jafe-jafe yoo xam ne mën naa nag comme dafa nekk diine joo xam ne jamono yépp ko tax a jug waxtu yépp ko tax a jug amul problème lu dul ne daf ko amal solution ba noppi te yii bokk na ci yi nga xam ne ca ba muy tàmbali la ko amaloon solution euh, bu mu xamee lu suñu Ibrahima waxee kan moo war a yor gone gi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 Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan suñu borom sàmm ko te aar ko yokk wéram ak kàttanam te naal yi nga xam ne mi ngi ko naal di ko doxal ci liggéeyal lislaam waaye liggéeyal Cheikhul Xadim yàlla suñu borom sottal lépp niki noonu it ñi ngi nuyu yu baax ak ziyaar mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ àndal waxtaan wi moo xam ñi àndal jataay bi ak ñi ñuy topp ci Euh, bërëb yu fasanti ci biir réew ci biti réew jaar la ko ci jumtukaay xarala yi waaye di ci jiital mbooloo mi nga xam ne ñoom ñooy taxawu liggéey bi di waa Muxaddamatul Xidma di ko teg ci loxol kilifa gi nekk ci bopp bi mu boole ko mbooleem mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi di ñaan suñu borom defal ñu tawféex ci liggéey bi yàlla suñu borom dogal ñu dëppoo ci ngërëma sëñ bi di noonu nuyu ñëpp rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di teewlu waxtaan wi Euh, waxtaan yi comme ni ko sëñ Muudu tam euh, ubbee rek ñi nga war a wax ci ñaari tomb yoo xam ne dañoo duggante duggante gi nag benn bi day dugg ci bi ci des bi ci des day yóbbaale bi njëkk bi te mooy li ñuy wax radaatu wal xadaana radaa bu ko waxee mooy nàmp ak li ci aju ci ay àtte tombu ñaareel bi xadaana mooy lu aju ci yar ab xale bim juddoo ba nim euh, doone mu kàllaf bu dee góor wala bu dee jigéen nit ba ni muy sëyee ba ñu koy jox boroom këram euh, lislaam nag ni nga xamee ne bàyyiwul lenn lu dul ne da koo indil ay atte yu leer naññi amul benn tomb wala lenn loo xam ne soxal na dundu doomu aadama lu dul ne lislaam jàngat na ko jàngat gu yaatu lépp lu ca mat a xam lislaam leeral ko suñu borom day tere nit muy dugg ci mbir lu dul ne daa xam la ca àtte suñu borom suñu borom day wax ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm looy def lu mën di ndaw na ci xam la ca suñu borom at boo ko xamul war koo jàngi suñ tubaa day wax ci tasawdu sixaar naan qultu wa qad xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila filan bi geyri cilmi xukmi araamal na ci mukallaf mu man di doon muy jëf jénn jëf ju man doon lu dul ne daa xam atteb sharia ca loola ya muy def ndax boo xamut ate sharia ci jëf ji ngay jëf lim lay jural mooy def lu euh, sharia di xaraamal li ñu war a waxtaane nag moo daa doon loo xam dañoo war a xam dañ ko war a xam-xam ci lan mooy atteb sharia ndax bu dul loolu mën nañoo dugg ci def lu sharia di atte euh, ne dafa xaram ñu di ko def te duñ xam ne lii dafa xaraam te buñ xamee ne euh, ci askan ni nga xamee ne doomu aadama dafa xaram ci moom am ñoo xam ne mu jo mu denc leen ngir jege gum leen jege ci wàllu askan loolu la araame ci moom am ñoo xam ne mu denc leen wala mu séyeeg ñoom ngir jege gim leen jege te la war a jege ga ak nàmpal moo ko waral loolu nekk lu ñu war a xam waaye it bu ñu xamee loolu xam lu aju ci àttey xadaana te mooy yor xale dana ñu mucc ci jafe-jafe yu bari yi nga xam ne day faral di am ci ay xëccoog ñàkk déggoo ci ak njaboot comme ni ko suñu Moodu jiitalee ndax bëraa na jafe-jafe yu am ci ginnaaw ñaar ñu way dencante buñ taqalikoo te lay waral jafe-jafe mooy ñàkk xam àtte sharia ci buñ taqalikoo te am ak njaboot njaboot googee nan la lislaam wax ci nañ leen taxaw te loolu lislaam détaillé na ko détail bu yaatu boo xam ne euh, kan la war a wax ne moo leen war a yor bu ñu nekkee euh, di ñaari way taqalikoo ndax bu ñu nekkee ci ab say moom euh, li ñu xam mooy ñoom ñaar ñoo leen bokk yor waaye bu ñu taqalikoo kan moo leen war a yor Euh, kan moo bu fi kii nekkut bu fi kii maanaam lépp rek euh, lislaam ba ci sax euh, xale bi nga xam ne moom la ñu yor sax ku mu bokkal yaay wala ku mu bokkal baay mën na koo yor loolu lépp rek danañ ci egsi bu ñu egsi thème ñu njëkkee nag te mooy ar-radaa moom lañ njëkk wax mooy nàmpal ak li ci aju ndax xamoon nañu yonent saa sa waxoon na ne lépp loo xam ne dafa xaraam ci nit ki mu de ma jëpp jigéen gu araam ci doomu aadama mu sëy ak moom ngir ak mbokk gu de jekkee moo xam ne yaayam wala muy doomam wala muy magam ju jigéen wala rakkam ju jigéen wala muy na wala yaayam noonu mu araamee te ak askan waral ko noonu la mën a araamee ci moom bu fekkee ak nàmpoo dafa dox seen diggante ak nàmpaale dox na seen diggante kon loolu war naa tax ñu xam dëgg-dëgg lan mooy kon nàmpaale gi tax ñuy wax ak it euh, lan mooy ay atteem ak it euh, ñan ñoo mën a araam nit ki ci ak nàmpaale ndax loolu am na bari na njuumte yoo xam ne doomu aadama dañu koy def te duñ ko xam ndax nit mën na génn bàyyi fi doomam muy jooy wala dara keneen ku bokk ak moom nàmpal ko wala yu mel noonu wala sax nga gis maam joo xam ne day nax ab sëtam fopp ko di ko nàmpal te du xam ne bu ko nàmpaloon day mujj sët bi ak baay ji dañuy mujj mel ne ñaar ñu bokkaat yaay te sët boobu dootul mujj mën a sëy ak ay doomi baayam wala yu mel noonu ndax day mujj doon doonaat seen baay wala mujj doonaat seen nijaay ngir ne dafa nàmp ci seen maam loolu it day àtt yu mat a bu dee nàmpal nag bu ñu koy xamle ibnu arafa dafa wax ne arradaa arradaa urfan wusulu labani aadamiyin bi maxalli mazinnati xisain li taxrimihim bi saoti wal xuqna wala dalila illa musamma radaa bu ñu wax arradaa dëgg-dëgg nàmpal gi ñuy euh, d'accord ci ne mooy nàmp mooy soowum doomu aadama bu jóge ci fa mu bàyyi ko dugg ci biirub xale te dugg ko dugg mu doon loo xam ne amal na ko njariñ maanaam doy na ko wëlif ak lekk euh, waaye moo xam luñ nàmp la ndax liñ xam ci nàmp mooy xale mooy sax aweñ di muuc waaye leneen bu jaaree feneen lu mel ne dañ ko koo xool masalan tey dañuy jël meew soow mi eh, sotti ko ci ab biberon wala dara xool ko ko ba tey day day dugg ci nàmp wala lu mel ne dañ koo jaarale ci ay bakkanam ba tey day dugg ci nàmp wala lu mel ne dañ koo jaarale feneen ci buntu suufa wala dara tam taxaw ko taxawaayu lekk ba tey day dugg ci nàmp kon loolu mooy jëmmi nàmp mooy soowum doomu aadama mu egg ci biirub xale benn mu jaar ci gimiñam wala mu jaar ci ay bakkanam wala mu jaar ci ab jaarukaay bu yaatu bu dee jaarukaay yu xat yi nag lu mel ne ay bët wala ay nopp wala lu mel ne bën bëni kar wala yu mel noonu su boobaa nag desu ko jàppe waaye leneen lu dul loolu rek loolu la ñuy jàppee ak nàmp goo xam ne ak aramante dana ci dox ci diggante doomu aadama yi te bu ñëwee ci sart yi sax dana gën a leer euh, lan mooy euh, li ñu wax léegi suñ borom nag ci alxuraan moo digle waajur yi ñuy nàmpal seen doom yi ndax suñu borom moo wax ne wal waalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimma rabaa ñi nga xam ne ñoo jur seen doom yi nañ leen di nampal ñaari at yu mat sëkk ci képp koo xam ne namm naa euh, nampal nampal gu mat sëkk euh, borom xam-xam yi wax ne ndigal loolu farata la woon ci njëlbeen ga ginnaaw bi ñu folli ko am wax xam ne dañoo xam ne bu njëkk force la woon ci waajur wu nekk mu nàmpal doomam ñaari at yu mat sëkk ci mujj ga ñi daal koy oyofal nga xam ne léegi nekkutu force waaye suñu boom day wax ne ki nga xam ne dafa bëgg a nàmpal nàmpal gu ma sëkk lu mu gàtt gàtt na nàmpal doomam ñaari at loolu mooy li mat waaye nag nekkul force ci nit ki mën naa nàmpal lu koy yées waaye loolu it day am détail yu ci aju day ndax dañuy wax ne nàmpal ñaari at àq na ci diggante ñaari dencante yi kenn sañu ta nàmpal lu yées ñaari at te kenn lu dul ne ñoom ñaar dañ caa d'accord bu fekkee waajuru daa wax ne dañu nàmpal xale bi ñaari at waajuru góor waajuru jigéen ne duñ ko nàmpal ñaari at kay wax ne dañ koy nàmpal ñaari at kooku la ñuy àndal ndax loolu mooy àqam loolu dañ ci yaatal kon digal suñu borom la te mooy li ñu xam mooy urf dañuy wax ne aada lim euh, tegtale mooy jigéen ju nekk ci ab say mooy nàmpal doomam loolu lañ xam lu dul ne nag dafa am ay yeneen euh, xaala yoo xam ne bu dikkee mën naa dox digganteem ak mu nàmpal lu mel ne mu am tawat wala lu mel ne xëy na dafa bokk ci jigéen ñi nga xam ne imaam Malik da leen sett ci aaya bi koo xam ne dafa am dafa askanu xam ne bu njëkk araab yi yenn jigéen ñi nga xam dañoo askanu woon lool daawuñ nàmpal seeni doom dañu leen fay ñu nàmpal leen wala lu mel ne eh, borom kër bi dafa tàqali ko soxna si tàq fase ko fasam eh, facci su boobaa jigéen gi sañ na koo bañ a nàmpal ndax nàmpal gi du force ci jigéen gi loolu danañ ci yaatal bu ñu ñëw nag ci ngir gën a mën toj tomb bi dañu gis ne boo waxee nàmpal rek faw nga tudd ñetti mbir mooy kii nàmpal ak ki ñu nàmpal ak jëmmi soow mu ñu nàmp kenn ku nekk ci moom am na sart ñu ci sart ngir nàmpal gi doo ko mën a wér bu ñëwee ci kii nàmpal dañuy sart ci moom mooy jigéen gi moo xam yaay ki jur xale bi la wala keneen jigéen gu koy nàmpal la dañuy sart ci moom mu doon doomu aadama maanaam nàmpal gi balaa mën a xaraamante day fekk mu nekk ci mu jóge ci doomu aadama euh, dem ci xale bi kon bahima bi nga xam ne dafa nàmpal ñaari xale yu bokkul duñ tax ñu jàpp ne ñaari xale yooyu dañoo araamante ci wàllu nàmpante man tey ñaari xale yu bokkul bu ñu bokkoon nàmp ci aw nag wala ñu nàmp ci am xar ci misaal aw béy du tax ñu jàpp ne ñoom ñaari seen diggante aramante dox na ci waaye it euh, na doon doomu aadama ba nga xam ne dañoo gis ne junne ju jigéen su nàmpaloon nit Euh, kooku mu nàmpal ak doomi boppam du tax ñu araamante loolu nag day toppaat ci wuute bi borom xam-xam am ci ndax euh, jinne mënees na koo yor soxna wala déet ndax borom xam dañ ciy wuute euh, wuute boo xam ne ñii daganal nañ ko ñii ne munta nekk ñii ne nangam nàngam la ci am ci ay wax bëri na trop daanaka du jar ñi di ci xuus waaye ña gis ne mënees naa yor soxna si junne dañoo gis ne ku yoroon soxna si junne mu am doom di nàmpal soxna soo soosu bu nàmpalee keneen ku dut doomam. doom jooju ak jëmmi doom jim yor ay dañuy araamante kon loolu borom xam xam wax nañ ko boo xoolee ci sara xalil yi ak yeneen téere da nga ko ci gis kookuy nampal na doon doomu aadama ñeneen ñi dañ ci doolu sart sart bu na doon doomu aadama bu jigéen moo tax ñu gis ne bu dee ku góor ku nàmpal nit la dañuy gis ne soow moomu ko nàmpal du jur ci moom ak araamante ndax dañuy wax ne loolu mën naa nekk euh, Cheikh Ousmane ibnul Makki ci tawdixul ahkaam ala tuhfatil hukkaam Euh, téere bi mu def di sara tuxfatul xakkaa xukkaam indi na ci ay xissa yoo xam ne wax na ne euh, lu mel noonu mas naa am ci gis nit koo xam ne góor moo ko nàmpal wax nañ ne lu mel lu mën a nekk la ba moom sax nettali na ñaari xissa benn xissa ko nettali waaye beneen xissa bi dafa wax ne nit nettali na ma nit koo xam ne ku ma doy la ci ne moom ak góor nàmpal na ko ci dëkk sàngam ca Tunis nga xam ne kon loolu wér la loo xam ne moo xam nga moo ko bind ci ab téere waaye ci mësëb bi it boo liiree saaxal day gis dañ naan bu fekkee am na ñenn ñi dañ ne ak araamante du ci juddoo ñenn ñi ne ak cibeel maanaam ak araamante du ci juddoo maanaam jigéen ku góor ki ak kim nàmpal du ak araamante dox seen diggante waaye ak cibeel dana ci am mooy danay sib ci moom mu takk kooku am ñu ne ak araamante da ci am ba faaw comme euh, jigéen gu ko nàmpaloon kooku nàmpalit sartuñ ci mu doon mag dañuy wax ne même xale bu ndaw bi nga xam ne tollagul sax fu ñu mat a séq ak moom bu yàlla dogaloon ci moom mu am am soo ma xale bu am juróomi at wala juróom-ñaari su nampalee nit day mujj doon yaay ci moom ni ko noonu jànq bi xam ne musta sëy bu yàlla dogaloon ci moom mu am am soo bu nampalee ci soo moomu nit soo moomu kooku mu nàmpal day mujj doon yaay ci moom kooku bëgg bëggoon a takk du mën a takk du mën a takk ay doomam ndax day mujj mel ne yaay ak doom ni ki noonu am màggat moo xam ne dafa dem ma doon mag mag ma xam ne maanaam euh, màggat na même bu fekkee dafa nàmpal xale te nàmpal ko am soo day mujj doon yaay ci moom Euh, kon maam yi nga xam ne ñu nàmbal seen sët ci misaal ku ci nàmbaloon sa doom soow sa sët boobu donte yaay maamam waaye da ngay mujj doonaat yaayam donte kooku yi nàmpal sax sartuñ ci mu nekk kuy ci dund bu fekkoon nit ku faatu la nga xam ne cay misaal euh, xale bi dafa fekk faatu mu ràmb egsi ci moom nàmp ci moom ba tey kooku mu nàmp day mujj doon yaay ci moom kon loolu borom xam-xam yi wax nañ ko muy sart yi nga xam ne wax nañ ko mooy benn na doon doomu aadama donte ku ndaw la tey jigéen euh, nga xam ne kon góor lu ci bokk ci yenn wax yi waaye nag bu fekkee ki faatu ci sartu nag mu wér ne soow mi ngi ci moom wala ñu wala sax soow mi ngi ci moom waaye eh, sikk sàkk eh, am na ci su boobaay dañuy dañ koy dugal ci buntu eh, nàmpal dañ jàpp ne bu fekkoon xale bi daa ñëw fekk kii mu tëdd mu faatu mu sex aw weenam nàmp ko te wér nañ ne ween wi am na soow waaye nag sikk sàkk nañ ci ndax dara dugg na ci jimuñu xale bi wala dara dugg ci ba tey dañuy jàpp ne nàmp gi am na kon loolu mooy li nga xam ne mooy lii Eh, sart yi nga xam ne sart nañ ko ci jigéen ji nàmpal na sart yi daje ci moom ñu doog a nangoo nàmpal ne nàmpal nàmpal gi wér na bu dee ponk ponkum ñaareel mooy jëmmi soow mi ñu nàmp soow moom it dañ ci sart ay sart ba ci jiitu mooy na doon soow moo xam ne dafa nekk ca cosaanal soow ma bu mu soppiku soppiku ga nag jéggal nañ soppiku cafka ga bu fekkee soow ma dafa wex wala dafa am xet waaye nag couleur soow ba moom soppikuut na na mel na soow di mel la mel te dafa weex su boobaa def na ko jéggale dañu jàpp ne soow la ba tey bu fekkoon xale mi soow mi mu nàmp dafa weex xat wala mu eh, am leneen lu muy loo xam ne bu baaxuwut ak li soow di saf waaye dafa weex ni soow di mel la mel ba tey dañuy jàpp ne nàmp na soow mu wér su boobaa dañu ne ki ko nàmpal day mujj doon yaay ci moom waaye nag bu fekkee jëmmi couleur soow maa soppiku mu mel ne ndox lam nàmp masalan lu zone la wala lu xonq ba su duñ ko jàppe am soow duñ jàpp dañuy jàpp ne nàmp googu wérut Mm, dañuy jàpp ne nàmp googu wérut soow moom it sartuñ ci mu doon soow képp même jëmmi soow mi bu ñu ko jëloon jaxase ko leneen te soow ma not wala lañ ko jaxase ak soow ma tolloo ba tey bu ko xale naanee dañuy jàpp ne eh, dëgg-dëgg nàmp na ci eh, ki borom borom soow mi ci misaal bu ñu jëloon soow mi maanaam tey bu ñu jëloon ci jigéen gi am soow dugal ko ci ab biberon ba mu digg ñu jël ndox feccali ko jox ko xale bi mu naan ko ba tey dañuy jàpp ne doomi kii soow mi bawoo ci moom la ni ki noonu soow moom bu ñu ko jëloon transformé ko def ko masalan tey euh, congelé ko mu doon ab crème wala dara ñu jox ko xale bi mu màcc ko ba tey day dañuy jàpp ne doom la ci ki soow mi jógee ci moom ni bu ñu ko defoon leneen te euh, mu xale bi jëfandikoo rek subaa dañuy jàpp ne soow la waaye nag bu fekkoon soow mi ko jël jaxase ko leneen loola ëpp lañ booleeg soow ma ëpp su boobaa nag euh, subaa kenn dootu ko kon jàppe nàmp gu wér waaye daal bu fekkee soow ma moom ak lañ ko booleel ñoo yem wala jëmmi soow ma ëpp dañ koo njar soow ma ëpp wala moog ndox mañ ko njar ñoo yem subaa dañ jàpp ne ba tey eh, soow maa nga fa waaye nag bu fekkee ko booleel moo ëpp noonu dañu jël soo tuuti soo def ci biberon bi jël ndox mu bëri feccali ko su boobaa eh, bu ko xale bi nàmp kenn du jàpp ne ak nàmp dox na ci diggante bi kon loolu mooy sart yi nga xam ne dañ koy sart ci eh, soow mi balaa nàmp gi wér ponkum ñetteel bi te mooy jëmmi bërëb bi nga xam ne fi la soow bi jëm te mooy xale bi nàmp mooy moom it dañuy sart Euh, balaa nàmp gee wér dañ naan soow ma mën a egg ci biiru xale bi bu fekkoon soow mi xale bi da koo sax rek yàbbiwaat ko su ak nàmpaale du fa dox te egg ci biiru xale bi eggin woo xam ne benn mu jaar ci gimiñ ji wala mu jaar ci bakkan yi jaar ci gimiñ gi mooy benn da koo nàmp dafa sex weeni nàmp wala benn dañoo jël soow mi pa sotti ko ci gimiñ dañ ko koo xol wala dañoo ubbi gimiñam jël euh, weeni masalan tey bés ko soow mi dugg ci biir wala mel ne dañoo jël soow mi jaarale ko ci bakkan yi su boobaa lépp dañ koy tuddee nàmp wala sax bu fekkee dañoo jël soow mi jaarale ko ci Eh, buntu suufa waaye su boobaa dañ ciy sart mu taxaw ko taxawaayu lekk bu dee nag da ko da koo nàmp sartuñ ci mu bëri mais benn donte benn muucu la muucu ci ci ween wi wala donte benn muucu la muucu ci biberon bi nga xam dañ cee def soowum nit su boobaa day eh, aram ba faw be donte benn muucu la sartuñ ci sax mu mu répété wala mu bëri xale gi bu ko nit ki fooboon jox ko weenam mu muucu ko benn yoon rek kooku ko fopp day mujj doon yaay ci moom ci misaal xale bi daa am mag jigéen ju toll ci di nàmpal mag ji jël ko fob ko nàmpal ko su boobaa xam nga ak araamante doxoon na ci digganteem ak magam ji waaye day mujj doxaat ci digganteem ak doomi magam ndax mënoon na takk doomi magam ndax eh, dañuy doon ay eh, man ma eh, doomi ci doomi doomi baayam laa jubloo wax bu fekkoon jigéen la goo xam ne doomi baayam la nga xam ne mënoon na koo takk soxna jigéen koo ko nàmpal ko dootul ko mën a takk waaye dootul mën a takk doom yooyu nga xam ne jigéen googu moo leen jur ndax day mujj doon seen nijaay donte benn muucu la muucu ci moom nga xam ne sartuñ ci mu nekk lu bari kon loolu mooy euh, li nga xam ne moom lañu sart ci nàmpalante ci euh, xale bi mooy ñetti ponk yi mooy jëmmi ki nàmpal ak ki ñuy nàmpal ak li ñu koy nàmpal te mooy soow mi bu ñu xamee loolu nag euh, dañuy wax ne diggante bi nga xam ne ci lañ naan xale bi bu ci nàmpee ci nit dañ koy jàppee doomi kooku ko nàmpal dañ naan mooy digganteeb ñaari at yi maanaam ñaar maana bis bi mu juddoo ba baa mi matal at ñaari at mbaa lu tuuti lu ca dolliku lu tuuti loolu nag boo xam ne wut nañ ci ñi dañ ne mooy weer wala ñaari weer kon dañ naan xale bi bi mu juddoo ba bi mu amee ñaari at ñaari at ak benn weer ba ñaari at ak ñaari weer diggante boobu bu fi nàmpoo ci la ñuy doog a compter nàmp gi waaye su doon ba doon magum jëm am fukki at wala fukki at ak juróom wala bu doon ab garaawal dara su nàmpoo nàmp googu kenn du ko bu fekkee am solo ko compter donte ay addis ñëw na ci ci sayyidatuna Aïcha wax ne daana ko def waaye dañuy wax ne loolu xew-xew la woon boo xam ne rek dafa amoon yontu saam da ko dafa amoon yàlla yontu saam yolomal ko ci ñenn euh, ginnaaw ba mu jógee foofu daanaka nekkutaan nekkaatul luy wéy waaye li gën a wér daal mooy bu xas xale bi xasee fer ci biir xam nga biir ñaari at xale bi mën na cee fer bu ci xasee ba fer ba commencé lekk su xasee nàmpooti donte matulul ñaari weer nàmp googu kenn du ko compter wala sax firut waaye dafa nàmp ba matal ñaari at ak ñaari weer ginnaaw bi lu mu nàmpwaat it borom xam ne dañuy wax ne nàmp googu kenn du ko compter li fi xale bi soxlaatu soow rek dañuy wax ne bu xasee nàmp nàmp gi kenn dootu ko compter fekk dafa nàmp ci yaayam at ñu feral ko mu commencé lekk ñu nàmpal ko nàmpal googuñ ko nàmpal dootul compter donte sax boo ko dellowaatoon muy nàmp waaye soxla woon na wëlif am soow rek su boobaa bu ñu ko nàmpalaate ci diggante boobu du bu fekkee nag firi ko diirum ñaari at yi dañ ko bàyyi muy nàmp di nàmp bu ñu ko fi nàmpalee moom nàmp googu dañ koy compter waaye bu xasee ñaari at yi xasee mat mu am ñaari at ak weer ñaari at ak ñaari même bu ñu ko féralut ba mu xam ne dañuy wax ne li topp ci loolu foofu la nàmpal yem lu ci xas topp kenn dootu ko kont kon loolu bu la ko waxee ci sam xel da ciy dégg kon nakate nàmpal mag kenn du ko waxaa waxaale wuñ ko xale bi bu xasee weesu ñaari at rek ak ñaari ko xasee lépp lu ñu ko nàmpalati kenn du ko compte kon at magum jëm moom kenn du ko wax te diir bi nga xam ne moom la suñu borom digle ci alxuraan ne ki ko ki bëgg a nampal nàmpal gu mat mooy diirum ñaari weer ñaari at ñaari at yooyu nag borom xam dañuy wax ne bokk na ci solo si tax suñu borom tudd ko mooy day dindi ak werante gu mën a am ci diggante ñaari soxna yi ndax ñaari soxna yi ni mu doonee àq ci ñoom ñu yor xale bi noonu ni ko la ci ñoom naam ñu nàmpal xale bi ñaari weer su ko soxna si nàmpaloon benn at ne dama koy feral bàyyi ji ne ko day nàmp ñaari at suba bàyyi ji dañ naan yow yaa am dëgg ndax mu nàmp ñaari at àq la ci yéen ñaar su fekkoon bàyyi ji xale bi dafa nàmp at bàyyi na day fer yaay ji na ko day nàmp ñaari at suba yaay ji dañuy jox dëgg ñoom ñaar daal kenn ku nekk ci ñoom ku ci bëgg a wuuteeg ñaari at yi ka day nàmp ñaari moom la ñuy jox dëgg ndax suñu borom loolu wax foofu it solo si day nekk ci bu fekkoon bàyyi ji day fayal ñu koy nàmpal mu fay aw am at daan ne bàyyi naa kii nàmpal ne ko ferrugut suba dañ naan ko da ngay continuer di ko fay ba matal ñaari at bu fekkoon dafa fay ñaari at daan ne ñaari at yi du ko weesu kay nàmp ne day continuer suba dañ naan ko ñaari at kat kenn du ko weesu kon su boobaa yow yam yam ko nàmpal da ngay xool noo def waaye ñaari at yi ko lislaam digal moom fay na ko dootu ko euh, weesu kon loolu bokk na ci solo si tax euh, suñu boroom wax ne xaw euh, xawlayni kaamilayni bu ñu xamee kon loolu dañu xam ne kon nàmp gi nga xam ne mooy ju jur ak araamante ci diggante doomu aadama ak doomu aadama mooy nàmp gu am ci biirum ñaari at fekk xale bi feragut wala sax mu fer ci diggante bi ba soxlaatul am soow wala nàmp goo xam ne waaye bu fekkee nàmp gi nga xam ne am na ci ginnaaw ñaari at yi wala nàmp gi am ci biir ñaari at te fekk xale bi fer na ba soxlaatul soo su boobaa nàmp googu kenn du ko jàppee nàmp gi araamal ci diggante eh, ñaari way dencante ginnaaw loolu it eh, nàmp googu bu ñu xamee loolu dañu xam ne kon eh, ñi war a araam doomu aadama bi ci ak nàmpaale yonent bi saa salaam da leen wax ginnaaw bi suñu borom tuddee ñaar ndax suñ borom daa wax ne xurrimat aleykum ummahatukum wa banaatukum wa axawaatukum wa ammaatukum wa xaalaatukum wa banaatu laxi wa banaatu luxti man yàlla araamal naa ci yéen juróom-ñaari jigéen seeni yaay bu ne seeni yaay maam yu jigéen dañ ci dugg wa banaatukum ak seen doom yu jigéen sër yu jigéen dañ ci dugg wa wa banaatukum ak seen mag yu jigéen wala seen rakk yu jigéen wa ammaatukum ak seeni bàjjan wa xaalaatukum ak seen yaay yu ndaw wa banaatu laxi ak doom yu jigéen yi nga xam ne seen mbokk yu góor ñoo leen jur maam seen mag yu góor wala seen rakk yu góor wa banaatu laxi ak doom yu jigéen yi nga xam ne seen mbokk yu jigéen ñoo leen jur ak seen mag yu jigéen yàlla su boobu ne araamal naa ci yéen ngeen takk ñii nit sañu ta takk yaayam sañu ta wala koo xam ne yaay la ci moom wala maam jigéen nit sañu ta takk doomam ju jigéen sañu ta takk ay sëtam luñ sori sori sori sañu ta takk magam ju jigéen wala rakkam ju jigéen sañu ta takk doomi ay bàjjanam sañu ta takk Eh, ay eh, yaayam yu ndaw suñu ta takk ay doom yu jigéen yi nga xam ne ay doomi magam lañ suñu ta takk doom yu jigéen yi nga xam ne doomi rakkam lañ moo xam ay góor a leen jur wala jigéen juróom-ñaar yooyu suñ borom tudd ci alxuraan nag ba mu ba mu noppee da cee dolliwaat ñaar dafa wax ne wa ummahaatukum laati ardaanakum wa axawaatukum min ardaa ak seen yaay yii leen nàmpal ak seen mbokk yi nga xam ne di ngeen a nàmpandoog ñoom jigéen gi la xas nàmpal donte sax seen diggante ak araamante doxuta woon nga xam ne tey bu fekkoon tolloo ngeen nga bëgg ko takk mën nga koo takk la xasee nàmpal day mujj doon yaay ci yow ki noonu képp ku mas a nàmpal kooku day mujj doon sa mbokk moo xam da ngeen a nàmpandoo ci moom moo xam kooku la njëkk a ci yow wala kooku la nàmpal ginnaaw bi mu la nàmpalee ba noppi moo tax yonte bi mas nañoo ñëw di ko gaaral euh, doomi sayyiduna Hamza ngir mu takk soxna mu ne ah, kii kat sama doomi mbokk la ndax maag baayam mbokk nañ nàmp ndax yonent bi sallallahu alayhi bi mu toll euh, ci nàmp soxna si ko doon nàmpal nàmpaloon na Sayyiduna Hamza donte baayam la woon te xam nga ne bu dutoon nàmpaale gi ñu nàmpaale sañ naa takk doomi baayam waaye ginnaaw bi ñu nàmpaale rek day mujj day mujj dañu mel ne ñoom ñaar ay mag ak rakk lañ te kenn sañ to takk sa doomi rakk wala sa doomi mag yonent bi sallallahu alayhi daa ne wax ne yaxrumu min eh, min an nasabi maa yaxrumu min ar rada wa fi riwaayati maa yaxrumu min al wilaada loo xam ne araam na ci aw askan te mooy juróom-ñaar ñooñu la tuddoon ni ko noonu bu ñu la nàmpalee ñooñu dañu araam ci yow te loolu boo ko doon teqee mooy jigéen bi bu la xasee nàmpal day mujj taxaw ci yaay day mel ne yaay ci yow day araam ci yow jigéen googu ay yaayam dañu araam yow jigéen googu ay rakkam yu jigéen ak i magam yu jigéen dañu araam ci yow ndax dañu mel ne ay yaayu ndaw ci yow ci ci yow jigéen googu yu jigéen dañu araam ndax dañu mel ne ay mag yu jigéen ci yow wala ay rakk yu jigéen ci yow niki noonu doomam yu jigéen yooyu seen doom yu jigéen dañu araam ci yow ndax dañu mel ne ay daxa nijaay ngay doon ci ñoom ni ko noonu jigéen gi doomam yu góor seeni doom yu jigéen dañu araam ci yow ndax day mel da ngay mel ne bàyyi ju ndaw ci ñoom kon juróom-ñaari jigéen yi yàlla suñu borom araamal euh, ne dañoo araam ci askan ni ko noonu boo nàmpoo ci jigéen ñooñu dañu mujj araamaat ci yow moo tax nit bu xasee euh, nàmpal nit rek day mujj doon yaayam ci moom doom ju mën di am doom jooju day mujj doon rakk ci kii wala mën doon mag ci kii moo xam fekk nàmpoon nañ ci moom jenn jamono bokk nañ di nàmp wala jamono yi nàmpante dafa rawante moo xam ñii dañoo njëkk a nàmp moom mu tege ci ñee li am li am solo mooy dañu mujj xool ne daal yaay la ci ñoom yaay la ci yaay moom yaay la ci ñi waaye it noonu ñuy bàyyee xel jigéen gi ko nàmpal noonu la ñuy bàyyee xel góor gi nga xam ne moo doonoon borom këru jigéen gi ko nàmpal euh, ki nga xam ne moo doonoon borom këru jigéen gi ko nàmpal dañ koy jàppe muy bàyyi xale bi waaye ci sartu bu fekkee ne euh, jamono ji ko jigéen gi nàmpal séqoon na moom Euh, séq goo xam ne dara jóge woon na ci moom dem ci ji ku jigéen ki su boobaa jàpp ne soow moom ku jigéen gi nàmpal soowam ku góor ki la su boobaa day jàpp ne ku la ci xale bi ñu nàmpal su boobaa dootu sañ a takkanteeg boroom këru ku jigéen ay ay doomi boroom këru ku jigéen moo xam doomam yi jigéen gi jur la wala doomam yi nga xam ne eh, geneen jigéen moo leen jur su boobaa dañuy mujj doon ay doomi baay ci moom te kenn mënut a takkanteeg say doomi baay waaye nag Euh, araamati gi noonu mu yaatoo ci ji ku jigéen nga xam ne ku jigéen ki day araam ci kim nàmpal ay yaayam araam ci kim nàmpal ay rakkam jigéen ak magam yu jigéen araam ci kim nàmpal ay doom jigéen araam ci kim nàmpal ay doom yu góor araam ci kim nàmpal bu fekkoon kim nàmpal jigéen la bu dee kiñ nàmpal nag moom nàmpal gi day day da koy concerné moom képp ak ay njabootam moo tax xale daa wax ne wa xuddiral euh, waladu xaasatan li saaxibati labani wa li saaxibihi min watihi linqitaahi walaw baada sinina maanaam bu ñuy xool dañuy xool xale bi nàmpal képp lañuy ñuy lijjanti waaye ka ko naam maanaam ñam bokkal moom seen yoon nekku ci euh, loolu danañ ci yaatal euh, borom risaal daa waxoon ne wa man ardaat sabiyan fa banaatu tilka al marati wa banaatu faxliha maa taxaddama aw taaxara ixwatun lahu wa li axihi nikaaxu banaatiha képp koo xam ne dangaa nàmpal ab xale xale boobu ak sa doomi boroom kër ya jiitoog ña mujj ñépp ay mbokk lañu doon waaye nag jëmmi xale bi nga nàmpal moom ñam bokkal seen yoon nekku ci te loolu su ma la ko doon misaal dañ naan bu fekkoon ab xale ngi nii tudd euh, Moodu ak jigéen nekk nii tudd Kumba jigéen gi nàmpal na xale bi tudd Moodu su boobaa dañ naan Kumba day araam ci Moodu Moodu araam ci Kumba képp ne yaay nga ci Kumba da ngay araam ci Moodu rakki Kumba yi dañuy araam ci Moodu ak i magam ak i doomam waaye bu dee jëmmi Moodu nag moom moom ci boppam képp mooy araam ci Kumba ak njabootam gi soqi koo ci moom waaye bu dee bàyyi bàyyi Moodu yoonam nekku ci bu ko neexoon denc Kumba mii nàmpal Moodu rakki Moodu ak magi Moodu ñi nga xam dañoo bokk ñoom bu leen neexoon denc kumba bu leen neexoon denc doomi kumba ñoom seen yoon néew ci yëfi daal ki mu concerné mooy jëmmi kiñ nàmpal euh, moom la concerné waaye ay mbokkam yi mbokkal ay magam ak rakam ñoom seen yoon nekku ci loolu mooy li Xalil wax ne euh, wa xuddiral waladu xaasatan li saa euh, wa xuddira tiflu waladan wa xuddira tiflu xaasatan waladan li saaxibi li saaxibati labani doomi jigéen gi lay doon Euh, doomi boroom këram min wat ihi waaw ci séq gam séqoon ak moom bu fekkoon nag ku góor ki dafa takk jigéen gi waaye jotugut a séq ak moom jigéen gi nàmpal ab xale su boobaa xale boobu mu nàmpal kenn du ko jàppe doomi góor ki ko nàmpal loolu lu mat a la nga xam ne kon bala ñoo jàppe ne ku góor ki moom it bàyyi la ci ki jigéen gi nàmpal lay fekk ne séq naa moom séq goo xam ne euh, nàmpal ko ca soo moomee moo sax boroom xam di wax ne bu fekkoon nit ki daa am soxna euh, soxna si nekk moom am doom mu tàqalikoo moom soxna soosa di nàmpal keneen takkaat ko keneen takkaat ko séq ak moom soow moom mu nàmpal ca ab xale dañu wax ne xale boobu borom kër bu njëkk ba ak borom kër bii ko takkaat ñoom ñaar ñëpp bàyyi la doon ci xale bi li tax mooy borom kër mu njëkk ba xëy na ci soow mi ci moom la sababoo ndax moo ko yoroon ba mu am ba mu doom borom kërum ñaareel bi dañuy wax ne séq gi mu séqaat moom dana tax xëy na euh, soow mi mi nàmpal am ak ak yokkute wala yu mel noonu Euh, noonu lay continuer nag di continuer même bu fekkoon dafa jóge waatoon ci kooku amaat amaat keneen borom kër noonu la bàyyi di yokkoo loo tax Xaalid wax ne wastaraka ma al xadimi mooy ku njëkk kam njëkkoon yor ak ki ku njëkk ku mujj ki ko mujjoon yor ñoom ñaar ñëpp dañuy mujj doon bàyyi ci xale bi ndaw si mujj nàmpal te loolu li ko waral mooy euh, soow mi leen ndaw si nàmpale kon loolu euh, mooy li nga xam ne nekk na ci masala mi nekk lu mat a nag ndax comme xamee nañ ko noonu xam ne kuñ xas nàmpal rek ak ka ko nàmpal dañuy mujj doon ay mbokk comme ni ñaari nit bokkee kon subaa lool mën naa ba xel ñu xam ne lii nekkul lu ñuy euh, bunt boo xam ne dañ koy oyofal masalan tey comme neex nga jël doomi jàmbur nàmpal wala ndax gis naa ñoo xam ne dañ koy def te euh, léeg-léeg mu daal nit maam joo xam ne ci misaal mën naa bañ a doon mag mën naa am doom doomam am doom mën naa toll ci nàmpal doom toll ci nàmpal mën naa nàmpal ab sëtam ci misaal bu fekkee jigéen dafa nàmpal ab sëtam sët booba kon indil na ko moom gàllankooru dootul mën a sëyëg ay doomi baayam ci misaal bu fekkoon soxna sii dafa am ay ay ay dafa jur masalan tey eh, Assane ak Ousseynou eh, mu jël doomi Assane nàmpal ko subaa doomi Assane mi mu nàmpal day mujj doonaat rakk ci Assane mi baayam doonaat rakk ci Ousseynou dootul mën a denc doomi Ousseynou ndax day mujj doon eh, bàyyi ju ndaw ci moom nga xam ne kon te loolu lan moo ko waral mooy. nàmpal gi ko maamam nàmpal moo tax xalil wax ci ne wa uddibatil mutaamidatu lil ifsaadi ki nga xam ne dafa nàmpal euh, ñaari xale euh, yu wala mu nàmpal ab xale te jublu caa yàq euh, diggante ba suba dañ ko war a teg ay daan bu fekkee nag koo xam ne da ko def ngir ñàkk xam suba waa xëy na mares naa doon leneen waaye bu fekkee da moom te xam àtte ba suba dañ ko war a ay daan kon loolu mooy li ci aju mu des nag bu fekkee ne ñaari nit ab sëy dafa doxoon seen diggante ba noppi ñu dem bisi ak ñu gis ne ñoom ñaar kat eh, ay mbokk lañ ci wàlluk nàmpaale su boobaa benn eh, la koy waral ñaari anam dong la mën a nekk mooy al iqraar wal ishhad iqraar mooy ñoom ñaar wala kenn ci ñoom ñaar saxal ne maag diw sàngam mii kat bokkoon nañ nàmp ci diw wala ñaari nit ñoo ne ñaari ñi day bi ñu doonee xale bokkoon nañ nàmp moo xam ñaari góor wala ñaari jigéen wala góor ak jigéen wala génn góor wala génn jigéen leen lu nekk rek am na ay détails Euh, bu fekkee ne ñaari nit dañ leen a maye ñu nekk ci ab sëy ñu dem bi sàgg ku góor ki moom moo saxal ne jigéen gi kat sama mbokk la ci nàmpaale sama mbokk la ci nàmpaale mooy benn nàmpaloon na ma wala benn bokkoon nañ nàmp ci diw wala benn sama soxna nàmpaloon na ci misaal su boobaa dañuy firi sëy ba waaw fa in aqarra zawju bin nikaa'i fa huwa ilaa fasxi nikaa'i daa'i loolu ibnu aasi wax ci tuxfatul xukkaam xukkaam borom kër bu demee bi sàgg mu ne sama soxna sii de bokkoon nañ nàmp dañ naan kon sëy bi koy firi mu des nag ñu xool ndax ba mu koy wax fekk na mu jot a séq ak ndaw si dara wala séquñ dara bu fekkee jot naa séq ndaw si dara su boobaa ko jox ko la nga waxoon ne moom nga koy jox ceeg can bu fekkee jotoon ko wax dara mu ne kon ñu ne ko kon jox ko jox ay moromam bu fekkee ba mu koy wax nag fas nañ sëy ba waaye jotuñoo séq dara su da dañ naan ko kon na nga ko jox xaaju can gi su boobaa dañ koy jox xaaju can gi ndax su boobaa dañ naan ko ah xëy na kon dangaa saxal ne boo ay mbokk ngeen ci nàmpaale ngir bëgg a génn ci sëy bi te doo ko jox dara ngir bëgg a wan ne sëy bi sëy bu yàqu la daal dañ koy firi comme loolu la nag lay teg tuuma ci dañ naan la bëgg a ci sëy bi kon su boobaa euh, da nga ko war a jox xaaju can gi te loolu mooy li xam ci ab sëy buñ firi te jote amugu ci loolu mooy bu fekkee ku góor ki moo saxal ne euh, sëy bi yàqu na bu fekkee ñoom ñaar ñoo àndandoo saxal na euh, sëy bi dafa yàqu ba tey bu fekkee ginnaaw bi ñu jotee séq la nga xam ne maam moo xam dañ koo xamoon bi sax ñu fàtte ko wala ñu réere ko ñu réere sante xamoon nañ ne ñoom ñaar bokkoon nañ nàmp waaye dañ koo fàtte bañ fas seen diggante wala xamoon nañ ne sax ñoom ñaar ñoo bokk nàmp ci waaye xamuñu woon ne ñaar ñu bokk nàmp mënuñoo sëy dañ ginnaaw bi ci lañ dem xam ko su fekkee ginnaaw bi ñu koy xam fekkoon nañu sëy ba noppi jotoon seq dara subaa dañu fas firi sëy bi ndaw si ñu jox ko ak canam gañ ko waxoon wala ñu jox ko lañu jox ay morom mu dem bu fekkee nag bi ñu koy xam fekk na séq guñ dara dañuy firi sëy bi ak candu ci am bu dee bii moo ak candu ci am bu fekkee bi ñu koy xam séq dara loolu mooy melokaanu ñaareel melokaanu ñetteel mooy jigéen gi ci boppam moom moo moo saxal ne waa ji sama mbokk la ci nàmpaale sama la ci nàmpaale mooy benn bokkoon nañ nàmp wala nàmpal naa ko wala soxnaam nàmpaloon na ma su boobaa euh, bu fekkee ku jigéen ki moom moo ko wax te indiwut firnde subaa boobaa duñ ko nangu dañ naan ko euh, da ngaa bëgg génn ci sëy bi te suba defu na suba sëy bi day continuer suba sëy bi day bu fekkee nag indi na ci firnde nag ci boobaa ci lañuy doog a firi diggante waaye fekkee indiwu ci benn firnde nag moom su boobaa kon euh, sëy ba day continuer kon loolu la ibnu asim di wax naan euh, fa in aqarra zawju birradaai fa huwa ila fasxi nikaaci i kadaaka bil iqraari minhuma maa laa bi ictiraafi zawjatin in waqaa mooy bu fekkee ne ku góor ki moo saxal ne sëy euh, ndaw si mbokkam la ci euh, nàmpaale dañu firi sëy ba moo xam euh, séq nañ wala séquñ bu fekkee séq nañ mu jox ko ak cana bu fekkee séquñ dara mu jox ko xaaju can gi bu fekkee ñoom ñaar ñu ànd saxal ne sëy ba baaxut bu ñu séqoon dara da koy jox ko cana bu fekkee séquñ dara ñu firi sëy ba du ko jox dara bu fekkee ku jigéen ki nag moo saxal ne ay mbokk na ci wàll nàmpaale te indi ci su boobaa kenn du firi sëy ba foofu dañ ci tuddaale beneen masala mooy bu fekkoon ne waajuru ñaari xale yi ñoo ñëw saxal ne ñoom ñaar ñii kat ay mbokk lañu woon ci wàllu nàmpaale ma tey seen ñaari baay yi wala baayu kenn ci ñoom ñaar wala yaay ki ak baay ki ñoo ñëw ne ñoom ñaar kat bi ñu doonee ay xale bokkoon nañ nàmp ci diw sànga wala nangam ki nanga wala daal ak nàmpaale dox na seen diggante suba dañu xool seen wax joojee bu fekkee njëkk ñuy séq dara la su boobaa dañu firi sëy ba bu fekkee ak séq am na si ba noppi nag suba dañuy bàyyi sëy ba continuer loolu mooy anam gu njëkk gi nga xam ne ci dañuy firee sëyub ñaar ñoo xam ne ak euh, nampale daa doxoon seen diggante mu des nag bu fekkee ne ñaar ñu maandu ñoo ñëw seere ko moson tey ñaar ñu maandu ñoo ñëw daane ne ah yéen de ñaar ñii ngeen maye mën nañoo seer ne ñaar ñi ay mbokk lañ ci nampale su boobaa bu fekkee ñaar ñu maandu lañ ñu xam ci ñoom ak maandu subaa dañuy firi sëy ba subaa dañuy firi sëy ba euh, mu daal di continuer waat comme nii ñu ko waxee bu fekkee waa ji séqutoon ak ndaw si dara Euh, euh, suba fekkoon jotoon naa seq ak moom da koy jox euh, lam ko waxoon bu fekkee ak seq amutoon na suba dañu firi ba noonu kenn ku nekk dem niki noonu it bu fekkee ñaari jigéen ñoo ko seere waaye bu boobaa dañ ciy sart la ñuy wax nekk lu siiw lu ñu xam njëkk fas-fas ba waaye bu fekkee ñoom ñaar dong ñoo ko wax siiwut kenn xamu ko ku dul ñoom ñaar subaa kenn du ci firi sëy ba niki noonu it génn góor ak génn jigéen bu ñu àndandoo seere ko ba tey noonu lay demee ñaari góor ñoo ñëw seere ko ñaari jigéen ñoo ñëw seere ko wala ñaari góor wala génn góor ak génn jigéen su boobaa dañ ciy sart la ñuy wax nekk lu siiw luñ xam bu fekkee ñoom dong ñoo ko xam kenn lu ci firi ab sëy ni ko noonu génn jigéen ba tey noonu bu fekkee génn jigéen moo ñëw seere ne ñaari ñi kat ay mbokk dañ ca nàmpaale bu fekkee waxam ja siiwut kenn du ko compter bu fekkee wax ja siiw na nag ci la wuute am ñii ne dañ koy nangu ñii ne kenn du ko nangu kon daanaka ci tënk ngir bañ a guddal loolu mooy li ëpp solo ji aju ci wàllug euh, nàmpaale mu des it euh, beneen tomb boo xam ne des na ko jëf mooy lu mel ne Euh, seere soo xam ne lu ñu yàgg dégg la bu fekkee ñaar ñi dencante dañoo yàgg dégg ci ne yàgg nañoo dégg euh, ne ay mbokk lañ ci nàmpaale yàgg koo dégg ba mu siiw boo xam ne dañuy wax ne loolu bu amee buñ fasee seenu sëy dañ koy firi ibnu asim ci tuxfatul xukkaam wax ne wa umilat shahaadatu samaai fi lxamli wa nikaaxi wa radaa alxamlu wa nikaax wa radaa comme nit ñi yàgg wax ne ah diw sàngam ak diw sàngam kat ay borom kër la ñu yàgg ko di ko wax di ko wax ba mu siiw ba dëkk bépp xam loolu subaa dañu leen jàppee ñaar yooyu dencante bu fekkee ni ko noonu it fekkee dañoo yàgg wax ne diw sàngam ak diw sàngam ay mbokk lañ ci nàmpaale daanaka waa dëkk bépp moom la ñu wax ne ñëpp yëg ko dañuy nit ñi xam ko dañuy firi séy ba kon ci tënk lii mooy li aju ci wàllu rada te xëy na moo gën a eh, liñ ciy wax moo gën a néew ndax eh, li ñu war a wax ci alxadaana moo ëpp te xadaana day bunt bi yaatu boo xam ne euh, bu radaa jàllee euh, man nga ne day ñëw wala moog radaa dañuy duggante duggante goo xam ne mën nga wax ne jamono ji ar radaa di am lu ci ëpp xadaana day am te xadaana bu ñu ko waxee mooy lan mooy yor ab xale bi xam ne mënalut boppam dara ñu yor ko taxawu ko ba mu doon magum jëmm bu dee góor ba mu doon mukallaf bu dee jigéen ba mu sëyi ba jox ko borom këram xam ne jigéen gi bu ñu ko maye woon sax borom këram fase ko siqawata siqa siquta moom dara dañ koy dellowaat ay ay waajur ñu continué waat euh, xadaana googu amoon ci moom euh, loolu nag day wane diine lislaam euh, nim yaatalee ci côté yëpp ak it àq ji mu jox doomu aadama nga xam ne dafa joxe doomu aadama àq njëkk muy gëne àdduna ba bi mu gënee àdduna ba ni mu fi jugee àq ji mu ko jox ak warma ji day continuer nit bu fi jugee sax dañuy wax ne orma ji mu amoon bi mu dund orma jooju lay amaat même bu fi jógee moo tax nga dégg ñaan kenn sañu ta toog ci kaw ab bàmmeel kenn sañu gas ab bàmmeel kenn sañu ta damm yaxub jàmbur damm yaxub nit ku faatu ak damm ko bii ñu dund ñooyam lépp day wane aq ji doomu aadama euh, lislaam jox doomu aadama ak orma ji mu ko jox euh, waaye ki mu ko ñooñu mu ko jox xale bi ndaw bi nga xam ne day doog a juddu te mënulul boppam dara sax dañ ko ciy duwalaale te loolu la ñuy tuddee alxadaana di ko wax alkafaala di ko wax tarbiya lépp benn la mooy yar xale rek yar ko te bu ko borom xam-xam yi di taarif ibnu arafa daa waxoon ne xifzul euh, waladi fi yi wa mu'anatu taamihi wa libaasihi wa madjaihi wa tanzifi jismihi mooy nga yor ab xale di ko taxawu ci ak lekkam ak naanam di ko sàmm di ko sang di ko solal di ko lijjanti di ko di ko taxaw ba mënal boppam bu dee ku góor la dañ koy dañ ko koy defal bam doon mu kàllaf bu dee ku jigéen la dañ ko koy defal ba mu bu dee ko góor la dañ ko koy defal ba mu doon mukallaf su doonee mukallaf nag euh, mën a mën a lijjanti boppam su boobaa xadaanaam wàcc na su fekkee daa doon mukallaf nag ànd ak euh, daa euh, am ay gàllankoor lu mel ne moo laago wala dara su boobaa it xadaana gi day wàcc maanaam yar gi ko doon gi ko doon yar day day wàcc ay su ko defee nag ab dundam continuer di aju ci baayam fekkoon yaayam a ko yoroon ci misaal di ko yor di ko yor ba mujj doon mukallaf su boobaa yor gi ko yoroon nag da koy mujj wàcc àq àq jooju day day mujj fa yam léegi nag ab dundam moom su fekkee dafa am ay gàllankoor yu mënut a liggéey wala suba ay dundam day continuer di war baayam bu dee ku jigéen ki dañ ko koy defal di ko defal di ko yor di ko yor ba mu toll ci sëy ñu jox ko borom këram ba borom këram jot ci moom bu fekkoon te borom këram da ko oh, fase woon te séquta moom dara day delluwaat ñu continuer di ko yoraat ba baa mi donte day mujj doon ba daa mi doon ba même bu demoon ba am meer sax dañu continuer di ko yor xadaana googu nag yàlla suñu borom eh, moo ko digle ba nga xam dañuy wax ne ci xisab saydatuna mariam ak doomam ja dañ ko ciy déggee wa kafalaha zakariya nga xam ne ba mu juddoo euh, euh, zakariya moo ko yoroon taxaw ko defal ko li ñuy wax kafaala ba ca aaya wal waalidaatu yurdixna awlaadahunna xawlayni kaamilayni ba liir tafsiru bi day wax ne imam Malik wax na ne aaya bii kat euh, tegtal la ci li ñuy wax alxadaana ba tey kon loolu mooy atte li ko waral nag mooy lan moo war a tax ñu def xale bi ñu yar ko mooy kii kat ab mbindeef la moo xam ne dafa lot am mënalul boppam dara dañ ko war a taxaw war ko teg ci yoon war ko làddante ba mu mënal boppam ab atteem mooy farata la fardu kifaaya la ci mboolem julli ñi ndax bu ñu doxoon ci àll bi ba fekk ab liir buñ sànni farata la ci ñun ñëpp ñu taxaw ko bu ñu ko fa bàyyee woon ñëppay amandoo bàkkar kon fardu kifaaya la waaye nag bu dee xale bi ci jamono yi ji muy ci ñaari atam njëkk yi dañuy wax ne fardu ayn la ci ñaari waajuram ci ñaam ñoom ñoo ko war a taxaw ba baa mi eh, génn ci seeni loxo waaw eh, borom kafaf daa wax ne eh, xadaanatu zakari xata yaxtalim walbintu lil binaai mimma yanxatim wa hiya li walidayhima martafaqa walxaqu lil ummi isa tafaraqa xale bu góor ak xale bu jigéen kenn ku nekk yor gi ñu lay war a yor ba nga egg fa ngay mënale sa bopp farata la waaye àq la joo xam ne nag ci ñaari waajur yi la ñoo ko moom jëmmi yor googu nag ñi koy yor ndax àq la joo xam ne ki koy yor moom moom àq ji ba su ko neexoon mu ne defuma ko wala àq la joo xam ne xale bi moo ko moom wala ndax àq la joo xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk wala ndax àq la joo xam ne suñu boroom moo ko moom wuuteeg ci li gën a siiw nag mooy dañuy àq la joo xam ne kii yor xale bi moo ko moom ibnu asim ci tuxfatu xukaam lay wax ne alxaqu euh, euh, alxaqu lil xaadini fi lxadaana wa xaalu hada alqawli mustabaana li kawnihi yusqituha fa tasqutu wa qiila bil aksi fa ma in tasqutu wax ne xadaana àq joo xam ne ki yor xale bi moo ko moom masalan tey waajur wi nga xam ne euh, mooy yor xale bi moom moo am àq ci yor waaye nag su ne woon yoruma ko wala mu génne ci ay responsabilité am su boobaa dañ koy jël jox ko keneen ki topp ci moom ba ba mu jeex ñeneen ñi ne euh, àq la joo xam ne xale beekum ñu ne àq yàlla suñu borom la war waaye li ëpp solo mooy li gën a siiw mooy dañu àq la joo xam ne ki yor xale bi moom mu àq yi bi tey ki ko war a yor gën fee jege sañu fee nekk keneen ñëw di ko yor ndax moom moo gën a yay ci yor ko loolu ci mooy ñaari waajur yi bu fekkee dañoo tàqali ko jamono ji ñu ànd ñoom ñaari ñëpp ñoo am àq ci yor xale bi waaye bu yàlla dogalee ñu tàqali ko nag foofu dañ naan àq ji jigéen gi moo ci gën a yey foofu ñu bëri dañuy réere loolu da ngay gis ñu bëri bu ñu tàqalikoo seeni soxla di xuloo ñoom ak di xëcc xëccoo njaboot gi wala ñu séddoo njaboot gi ñiy jël góor ñiy jël jigéen déedéet li lislaam digal mooy xale bi bu ay ñaari waajuram tàqalikoo yaay ji moo war a yor xale yépp moo leen war a yor li fii duggaatul ci ab sëy bu duggee ci ab sëy nag àqam wàcc na su boobaa nag maamam maamam ju jigéen ji jur yaayam doog a dikk loolu bu ñu egsee ci niñ koy euh, toftalee danañ ci ci jamono yonent bi sallallahu daa am ko teqali daa am koo xam ne dafa teqaliku woon ak soxnaam bëgg nangu doom ji soxna sa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ko diw sàngam mi kat damaa fase ba noppi bëgg nangu sama doom ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anti ahaqu bihi maa lam tankahi yow yaa gën a yaay ci moom yor xale bi li fii duggaatoo ci beneen sëy moo tax Ibnul Munzir wax na ne boroom xam-xam yépp dajee nañ ci ne jigéen bu tàqalikoo ak boroom këram te am ak njaboot ndaw moom moo gën a yay ci yor njaboot moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen lañ bu leen yoree nag góor bu ko yoree bam Euh, doon mu kàllaf jigéen nga mu yor ko ba mata sëy nag su boobaa nag àq ja foofu la yem nag yor gi mu ko yor tegtaliwul ne moom rek moo ci am sañ-sañ déedéet su boobaa waajur yi nga xam ne moom la ko séqal boo tey am na ci ay euh, sañ-sañ euh, lu mel ne li xale naan walil abi adabuhu wa baasuhu lil bi mooy bàyyi ji sañ na ko yóbbu daara mu jàngi bu tolle ci jàngi sañ na ko jël xarafal ko bu dee dafa am liggéey bu mu koy jàngal bëccëg sañ di ko jëli ko indi ko jàngal ak yu mel noonu waaye nag bu dee faree gi ak fa muy lekkee ak fa muy naan ak fa dëkk ci kër yaay ja war a doon loolu it lu mat a bàyyi xel la kon dañoo wax ne bu fekkee ñaari waajur yi ñoom ñi ngi ànd nekk ci biir sëy ñoom ñaar ñoo gën a yey ci yor xale bi waaye nag suñ xasee teqalikoo su boobaa dañ naan ñi xale bi ñeenti xaaj lañ leen di xaaj dañ naan ñeenti xaaj yi dañ leen topp xaaj par xaaj xaaj ba ci njëkk mooy al ummu wa nisaauha yaay ci jëmi boppam ak ay jigéenam yaay ak ay jigéenam mooy yaay euh, ak i jigéenam mooy bu bàyyi ji tàqali ko xale bi wala bàyyi ji faatu ci misaal yaay ji moo gën a am àq ci yor xale bi di ko di ko eh, moo xam góor wala jigéen su fekkee yaay ji dafa def lenn loo xam ne day day dindi àqam ci yor xale bi lu mel ne dafa sëyiwaat feneen su boobaa àq jooju day jóge ci yaay ji dem ci maamam ju jigéen ji jur yaay ji su fekkee maam ju jigéen ji moom dafa am ngànt lu ko tee yor xale bi lu mel ne dafa faatu nekku fi ci misaal wala moom mi ngi fi waaye moom dafa nekk ci ab sëyam su boobaa dañuy jël dañ koy jox jeneen maamu jigéen noonu lañ koy toppee ci côté maam yi maam yi jigéen ci wàllu ndey maam ji maam jigéen ji jur yaay xale bi dañ koy jox bu fi nekkut ñu jox ko maam ji jigéen ji jur maam ji jigéen ji jur yaay xale bi bu fi nekkut ñu jox ko maam ji jigéen ji jur bàyyi bàyyi ji jur yaay xale bu fi nekkut ñu jox ko maam ji jigéen ji jur maam maam maam ji jigéen ji jur yaay maami yaay xale bi noonu lañ koy toftaloo ci ko euh, wàllu jigéen kenn ci ñoom nekkut ñu doog a ñëwaat ci yaay ju ndaw maam yaay yaay xale bi xam nga yaay xale bi moom la njëkk a wax wax ay maam bu fi nekkul ñu doog a ñëw ci yaay ju ndaw xale bi souvent dañuy jiital ñi bokk ak yaay xale bi ndey ak baay buñ bu ñu amul kenn ci ñoom ñu xool ñi bokk ak yaay xale bi yaay bu fi bu fi kenn ñu jël ñi bokk ak bi baay bu fekkee ay yaayam yu ndaw kenn nekku fi ñu jël yaayu ndaw yi yaay xale bi maanaam ñi bokkoon ak maami xale bi maam xale bi yaayam ay ay yaayam yu ndaw bu fekkee ñooñu nekkuñ fi nag euh, boo xam wax nañ ne dañuy doog a dugg ci euh, maanaam bàjjani yaay ji donte ñoom dañuy wute ci seen toftale bu dee xalil sax moom tuddut ay ay ay ay ay bàjjani ak euh, yaay yaay ju ndaw jeeg yaay yaay yaay yaay yaay jeeg yu mel noonu waaye ñoom ñëpp kenn ko dañuy wute ci ni ñu koy toftale daal waaye li am solo mooy dañuy topp wàllug ndey ji te wàllug jigéen it moom la ñuy jiital ci wàllug góor waaw ibnu asim wax na wa sarfuha ila nisaa yi al yaqu li annahunna fi l umur asfaq li tax ñu jiital jigéen ñi mooy euh, ñoom ñoo gën a mën a jànkoonteeg ab xale li xale di aajowoo ci wàllug jubbanteeg wàllug euh, fóotal ak wàllug sang ak lijjanti dañuy wax ne jigéen moo gën a mën góor moo tax su su lu mel noonu bu amee dañuy jiital jigéen ñi ci góor boo xam ne ñi ñu fi waxagul ñëpp ay jigéen lañ dañuy jiital ndey ak ay jigéenam ay jigéenam mooy maam ak ni mu bu fi nekkut ñu jiital jigéeni baay fi ñu toll bàyyi dikkagut ñu ñu jiital jigéeni baay mooy. yaayi baay bu fi nekkut ñu doog a ñëw ci euh, tofte maanaam yaay yaayi baay bu fi nekkut ñu ñëw ci yaayi baay yaay toftale ko noonu ba jigéeni baay jeex su fi nekkut nag ñu doog a ñëwaat ci euh, mbokki maanaam euh, ji xale bi ñi nga xam ne dañoo bokk ak moom te te ay jigéen bu ñu fi nekkul nag ñu doog a jàll ci xaajum ñetteel bi ci mooy alwasi mooy njënkaan koo xam ne dañoo dénkaane woon na na ko yor su fi nekku nañu yog a ñëw ci alasaba mooy yeneen góor ñi mooy doomi bàyyi yeeg doomi bàyyi góor ñi wala ñeneen ñi nga xam ne bokk naa ñoom te ñu ay góor daal te bokkuñ ci jigéen ñi nga xam ne baay moom moom boo jiitalee yaay nekku fi nga jiital jigéen yaay nekku fi nga jiital jigéen baay nekku fi ci ngay doog indi baay bu fi nekkul nag ci la ñuy doog indi mbokk mu góor mbokk mu jigéen bu fi bu fi kenn nekku ci ñoom ñaar ci lañu doog andi doomi mbokk mu góor wala doomi mbokk mu jigéen ci wuute gi ñu am ci ñoom ñaar kan lañ a jiital ñii ne dañu a am kafa a ci yor xale ñu doog koo yor bu fekkee loolu jàll nag suba ci la ñu a ñëw ci ñetteel mooy wasi ku ñu dénkaan bu fi nekkul ñu doog a dikk ci euh, al mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ak xale bi te ay doomi baayam yu góor wala yu mel noonu nga xam dañoo bokk ak moom ci wàllu gaño su fi ñëw su noonu ñoo ñu nekkul nag xëy na lool moom ñoom ñëpp moom kenn ci ñoom faaw am ko fi nekk mën a yor xale bi ibnu asim ci ni mu ko toftale dafa waxoon ne wa fil inaasi li duxulil muntaha fal ummu awla summa ummuha biha fa ummuha fa xaalatun fa ummu lab summa abun fa ummu man lahun tasab fa xamatun fa loxu summa bnatu lax summa famnatu uxtin fa axun baadu rasax wal asabaatu baadu wal wasiyu axaqu wa sinnu biha mariyu foofu dañu leer ne ñi ko yeyoo bu fekkee dañ fay dajee te magante ci ay at wala ñu gën a jegeen jegeñante dañuy jox ña gën a jege masalan tey bu fekkoon xale bi ñi ko war a yor ay yaayam yu ndaw ñoo fi nekk masalan yaayam dafay nekkut maam ju jigéen ji jur yaayam nekku fi ay maam nekku fi ay yaayam yu ndaw nekk fi eh, dañuy xool ña bokk ak yaayam day ak baay bu bu fekkee kenn dong la ñu jox ko ko bu fekkee ñu bokk ñu bari la ñu bokk ak yaayam day ak baay ñu xool eh, ka mag ñu jox ko ko ginnaaw bi ñu xoolee ci ñoom ñaar ka gën a Euh, sàmm xale bi ak gën a am ci ñoom ñeewante bu ñu ci yemoo ñu xool ka mag te ñoom jox ko bu fekkee dañoo yemoo ci ay melokaan nag ñu daal leen di tego bant bu fi kenn nekku ci ñoom ñu doog ko jox ñi bokk ak yaay xale bi ndey bu fi nekku ñu doog a jox ñi bokk ak yaay xale bi baay kon daanaka ci tënk loolu mooy euh, ñi nga xam ne ñoo yeyoo yor xale bi ginnaaw bi mu jugee ci euh, loxol waajuram mi yaayam mi ko jur ak ay maamam waaye nag yor googu ñu yor xale bi nekkul ne rek xale bi dañ naan ay waajuram tàqalikoo nañ wala bàyyam nekku fi rek kon nañ jël xale bi jox ko euh, kii déedéet balañ laa sañ a jox xale bi dañ naan faw ñu am ay sart yu ñuy càmbar ci yow ndax euh, liñ lay jox amaana la nit lañuy jël jox la ko teg ko see loxo ngir bëgg nga taxaw ko kon yow yow mi koy taxaw daa am noo war a mel dafa am noo war ci ay melokaan euh, ndax am nga diine wala am nga ay sart ibnu asim wa sartuha sixatu wa siyaana wal xirsu wa taklif wa diyaana noonu la ko tuddee ba mu jeex borom kafa wa sartu fi lxaadini ayan kaana an yaxfasa al amwaala wal abdaana wa yusliha diina wa yusliha al salima min musin wa mu'din ka jarab ila axiri surut nga xam ne sart yi ñi sart ci kii yor xale bi mënees na ko séddale ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi góor ñi ak jigéen ñi ñoo ci yem ba te jiitu mooy at taklif maanaam ki ñuy jox xale bi na nekk mukallaf mukallaf nag ni ko nit ki doonee borom Ibnu Asiir jàngale woon na ko waxoon wa kullu taklifin maa albuluuxi bi damin aw xamli aw bi maniin aw bi inbaati shaar aw bi thamaanin asratan aw bi thamaanin asratan xawlan zahar mooy nit ki balaa mën a doon mu kàllaf faaw mu am fukki at ak juróom-ñett wala benn màndargay yi wane ak kàllaf feeñ ci moom lu mel ne eh, mu sax karaw ci yenn bërëb yi wala bu dee jigéen mu toll ci ëmb wala yu mel noonu xel mi noonu eh, ñaare bi mooy na amum xel ndax ku amut am xel kenn du ko taklif kenn du ko euh, teg yenn responsabilité yi waaye nag loolu téewut xale bu ndaw bi nga xam ne nekkagul mukallaf dañuy wax ne moom àq ji bu ci sësoon masante bu fekkoon maanaam moom moo ci sës ki ci sës nga ne moo war a yor xale bi ab xale la ni moom su waa dañuy wax ne bu amee ku ko yoral mën na koo yor su amee ko ko yoral boo xam ne ni xaadini saxiidi man yaxdinu lahu mooy bu fekkee ki ki war a yor xale bi day doon xale ba munu koo yor te am keneen ku ko mën a yoral su boobaa dañ naan mën na koo yor sartu bu njëkk bi mooy kon na nekk mukallaf ñaareel bi mooy na am kàttan ci yor xale bi ki nga xam ne dafa lottu ngir ak màggat gu ëpp wala tawat wala yu mel noonu ba munta yor xale bi ku boobaa dañ naan ko yor sa àq kon da nga koy ñàkk ñu xool ki topp ci yow ci misaal bu fekkoon yaay moo ko waroon yor wala maam ju jigéen maam jooju tey dafa màggat bu munta yor xale bi wala dafa am tawaat joo xam ne mu ngi ci wala dara ba lottu na daal mu munta taxaw xale bi dëgg dëgg taxaw dañ ko yow kat sa àq kon da nga koy ñàkk dañ xool ki topp ci yow ba ci dëgg mooy as sixat ak wér ki ko yor na na doon ko wér koo xam ne Euh, du lor xale bi ci tawat masan tey bu mu amee tawat joo xam ne day lor xale bi moo xam tawat la joo xam da koy lor ci bu ko xale bi gisee wala tawat la joo xam ne da koy lor ci bu xet gi xeeñe xale bi dañuy wax ne donte sax xale bi am na tawat ju mel ni moom waaye bu fekkee moom yor na ne xale bi loroo rek su boobaa kon dañ naan ko yow kat àq da koy ñàkk dañ koy jox keneen ci topp mooy na am asiyaana mooy ñoŋ na mën a ñoŋal xale bi mën a ñoŋal bagaasi xale bi ak dundub xale bi euh, lépp loo xam ne Euh, xale bee ko moom wala mu jëm ci xale bi na amu ñoŋ gu mën a toll ne man koo sàmm ba euh, du ko sàggane te du ko sax-saxe waaye it alxirs ni nekk ci bërëb bu am kaaraange rawatina nag bu dee ci ku jigéen ndax bu fekkee da ko yor foo xam ne wóorut amul sécurité masan tey wala mu yor ko fu wéet foo xam ne daanaka ñoom ñaar doo nga fa nekk te léeg-léeg day génn di dem di ko bàyyi ko di dem ko dikk wala sax dañuy wax ne même sax bu fekkee fa mu ko nekk na fa mu kaaraange waaye bu dee waa ji moom daa bëri lu muy dem mi ngi dem ko dikk dem gu bëri wax ne buñ ci ragalee mu sàggane ci xale bi subaa dañ naan ko ah yow sa sa àq kon da koy mujj ñàkk ndax dem gu demee gu bëri gi mën naa am xale bi toppatoo ba ca war du ko am wala mën naa am euh, sécurité ba mu war am dëgg-dëgg dootu ko am waaye sartu juróom-benneel mooy addiyaana mooy kii yor xale bi na am diine bu mu doon ku ñàkk diine lool moo tax ñaan ku mel ne ab kàccoor wala yu mel noonu euh, kenn du leen jox xale ñu di ko yor foofu nag mën nga ciy déggee ne bu fekkee tey nit ki aadaam dafa nekk koo xam ne dafa aada wa ju suufe wala mu nekk koo xam ne masan tey dañoo oyof ay nit ñoo xam dañoo oyof diine wala yu mel noonu wala ñu nit ñoo xam ne seeni aada masan tey dañoo oyofal yenn yi daal ci ko ci xale boo xam ne ci misaal euh, fam bokk wala euh, fam soqi koo euh, meluñ noonu su boobaa mën na mën naa dugg foofu su boobaa bu fekkee ki ko war a yor diineem dafa oyof wala mu ne aada woo aada joo xam ne dafa oyofal yu baree bari su boobaa dañ ko koy xañ moo tax wàll lii lu mat a taxaw la ndax fi ñu bari na ci doomu aadama yi ñoo xam ne yàqu jukk gi nekk ci ñoom wala ñàkk mel ni ñu war a mel gi nekk ci ñoom la ko waral mooy fañ yaroo moo ko def ci ñoom da gis koo xam ne mën naa bokk ak ay mbokkam yoo xam ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk wala mu mel noo mel noo xam ne ci melokaan wu doy waar ñoom meluñ ko te la ko waral mooy fam yaroo ak ñoom fañ yaroo daa bokkut moo tax sart yépp borom xam-xam yi da ko ci sart waaye sart bu mujj ci sart yi nga xam ne dañ koy sart ku góor ki ku jigéen ki mooy al amaana al amaana mooy na am euh, amaana na am euh, na doon koo xam ne wóolu nañ ko ci xale bi waaye wóolu ko ci it dundub xale bi ak euh, lay ñëw ci moom di tegu ci loxoom te euh, soxal xale bi ndax xam nañ ne xale bi ki koy yor la muy dunde euh, bàyyi jee ko war a fàgg lool donte ma li ñu mujje waaye ka koy yor dañoo daa war a doon koo xam dañu ko war a wóolu ci lu mel noonu sart yooyu nag lislaam bokku ci moo tax dañuy wax ne yaay ji donte sax du ab jullit ma nit ki daa takkoon ab chrétien wala yu mel noonu ñu teqali ko donte moom du ab jullit moo gën a yaay ci yor xale bi moo tax dañu sartuñ ci mu doon ab jullit waaye nag ci sartum nag mu bañ koo euh, yor yoreenu ku dul ab jullit di ko jox muy ay lekk yu xaraama yu mel noonu su boobaa nag euh, bu fekkee lu mel noonu am na nag dañ koy nangu nag jox ko jullit ñi ñu yor ko loolu tax xale wax naan wa du mat in xiifa lil muslimin mooy bu fekkee ragal nañ ci ki ko yor mu di ko dundal di ko jox masante lu mel ne sàngara wala yu mel noonu subaa dañ koy nangu ci moom nag euh, jox ko julli ñu yor juróom-ñaari sart yi ñu fi tudd yëpp nag dañuy wax ne bépp sart boo xam ne jam nañ ko ci jam nañ ci nit ki ne ko sart bi que nekkul ci moom da cee war andi firnde bu ci andiwul firnde ñu xañ ko àqam bu ci andee firnde nag ñu ne ko ah kon continuer suñ bu ma santee fekkoon waaje dañu ko ah yéen kat moom mi ngi yor xale bi waaye moom mënu koo yor ndax amul kàttan gu mu ko yore wala dara su boobaa moom day indi firnde luy wan ne mën na koo yor su ko indiwul ñu nangu ko sart yëpp daal dañ naan buñ ci tuumaalee waaye day indi firnde ba mu des benn sart mooy ak wér ak wér moom mooy cosaan ci doomu aadama moo tax ki ci tuumaal nit ki yow ma ko ci tuumaal yaa indi firnde boo ne nit ki ngeen jox seen doom ñu wér dafa am wér di boo xam ne mi ngi ci moom mën na cee wàll xale bi subaa dañ naan la indil firnde yow mi ko wax indil firnde luy wan ne moom daa wéradi soo ko indee muy firnde lu wér subaa ñu nangu xale bi ci moom bu fekkee amul benn firnde nag su boobaa xale bi day nekk ci ak kilifteefam loolu mooy juróom-ñaari sart yi nga xam ne dañ koy sart ci góor ak jigéen ñu yem ci mu am sart yoo xam ne nag dañ koy dollil ku góor ki nga xam ne moom moo war a fekkee daa demoon ba war a yor xale bi ñu dolli ko ci wala ak sart yoo xam ne ki jigéen ki dañ ko ko ciy dollil bu dee ku góor ki dañ ci e, dolli bu dee ku góor la dañuy sart ci moom mu yor koo xam ne ca këram moo koy mën a yoral xale bi ndax bu dee ma sant ab célibataire bu mel ne Sëriñ Galas Bamba kenn du ko jox ab xale mu di ko yor ndax faaw mu yor euh, ci këram soxna soo xam ne moo ko yoral xale bi wala mu yor ab jébéer wala mu yor koo xam ne euh, mbindaan la wala yu mel noonu ci misaal rek wala mu yor rakkam ju jigéen wala dara moo xam ne moo ko yor waaye bu dee moom ci jëmmi boppam moom dañ naan ko ah léegi loolu moom duñ ko nangu loolu mooy bi ci ku góor sartum ñaara bi mooy bu fekkee kami yor na doon góor wala bu dee jigéen na doon jigéen koo xam ne tollagut ci fu mu euh, fu ñu mën a séqi moom wala bu fekkee koo xam ne toll na fi mën moom du ko mën a yor lu dul ne daa mujj doon maxaram ci moom daa mujj aramante ak moom ci moom ci ci lu mel ne mu yor mu yoraale waajur mu jigéen ma doon tey xale bi ki koy yor ci jamono ji ko yor jamono jooju moo yor waajur xale bi maanaam mooy borom këru euh, yaay xale bi su boobaa mën na ko yor ndax yor gi yor yaay xale day tax xale bi aram ci waaye bu fekkee ñetti sart yi na moom su kon dootu ko mën a yor waaw euh, moo tax borom kafaana wa sartu fi zakari kawnuhu maa lil xadni unsa li shuruti jaamia bu dee ku ku góor la balaa sañ a mën a yor xale bi day fekk mu yor ci këram ak jigéen gu mën a yor xale bi benn muy soxnaam wala muy ab jaamam bu jigéen fekkee jamono jaam la wala muy eh, xëy na koo xam da ko luyee ngir mu di ko yor wala yu dee nag eh, ku ku jigéen ki ginnaaw bi ñu ci moom juróom sart yee ñu waxoon mooy na am diine nangam ak nangam eh, dañ ci sartaat mu nekk maxaram ci xale bi mu nekk maxaram ci moom mooy na doon koo xam ne araam ak araamante dox na diggam ak xale bi lu mel ne yaayu xale bi walla rakkam wala mag wala rakkam ji wala magam yu mel noonu ñaari bi mooy na am koo xam ne ak mbokkoo dox na ci diggam ak moom raxim roxum lu mel ne doomi na wala doomi nijaay ma ñaari sart yi bu fekkee benn bi doo nga fi nekk ba tey euh, du ko mën a yor bu fekkoon tey ci misaal mbokk la ci moom waaye ak araamante doxut ci diggante moom lu mel ne doomi bàjjanam wala doomi yaayam ju ko yor su boobaa duñ ko dañ koy jël ci moom jox keneen bu fekkee ak araamante dox na ci diggéenam diggam moom waaye ak mbokk doxut ci diggam lu mel ne euh, ki kon ki ki nga xam ne nampa dafa araamante ci nampaare xam ne araamante naag moom waaye ak ruxam doxut seen diggante ndax euh, su boobaa ba tey dañ koy nangu kon euh, loolu mooy sart yi ba ci toppit ci sart yi nga xam ne dañ koy sart ki jigéen ki mooy bu mu nekk ci ab sëy waxoon nañ ko waxoon nañ jigéen gi li fii mi ngi ci ab sëy mun maanaam amutul àq ci yor xale bi bu fekkoon ku jigéen ci masante yaayu xale bi dafa teqalikoo bàyyi xale bi ñu jox ko xale bi li fii nekku ci ab sëy mën naa yor xale bi waaye xasee ba duggaat ci beneen sëy dañuy nangu xale bi jox ko maamam ndax moo ci sës waaye nag bu fekkee jamono ji nga xamee ne yorugul xale bi daa fekkoon mu nekk ci ab sëy ginnaaw bi ñu fase ko euh, su boobaa mën naa ko yor waaye nag bu fekkee sëy boobu moom moo ci dugal boppam ci jamono ji àq ji ñëwee ci moom subaa dañaa ko ah, xam nga ne lii nga def day da xañ sa àq ba noppi nga def ko kon yaa ko tey subaa dañuy dox sa diggante ak sa àq ji xale bi waaye nag foofu borom xam-xam yi nee nañ ci ay masala dañuy wax ne bu fekkee ne ji ko yoroon dafa dugg ci ab sëy te kam sëyal nekk maxaram ci xale subaa danañ ko may lu mel ne dafa sëyeeg koo xam ne maam la ci xale bi wala baayam ju ndaw la wala yu mel noonu su boobaa dañ ko jéggal wala sax mi ngi ci ab sëy waaye jote jo jo jébalaguñ ko borom këram masan tey fas nañ ko nii rek waaye masan tey masan koo xam ne borom këram da daa nekk fii borom këram nekk bitim réew ñu fas ko euh, li fekk joxaguñ ko borom këram diggante boobu ak xam day continuer di wéy wala sax euh, yaay ji nga xam ne moo ko yor daa nekkoon dénkaan ci moom daa nekkoon dénkaan ci moom mooy dañoo digle woon na ko yor dañoo dénkaane woon na ko yor ba tey suba waa comme it euh, ak xam du ba tey du ko ñàkk wala xale bi nanguwul ku dul yaay ji ku dul yaay ji nanguwu la subaa kon dañaa ko ah kon dañ la koy bàyyee nga yor ko ndax nangu gi ñu koy nangu ci yow di ko jox keneen mën naa jural xale bi lor mën na mën na koo jural sax faatu wala sax euh, xale bi yaay ji da koo yor euh, daal di dugg ci ab sëy keneen ki am ci àq moom noppi ci waxu ci dara noppi ci lu matam at subaa dañaa ko yow bi nga gisee ne yaay ji dugg na ci ab sëy ñàkk na àqam yow yaa moomoon àq ji yow jëloo ko toog di ko seeraan ba mu tolloog diirub at su boobaa dañu jàpp ne noppi gi nga noppi ci eh, sa àq te jëloo ko mooy dañ koo bëggut kon su boobaa dañ koy bàyyi mu continuer yor ko eh, mel noonu moo tax ba mu fi ay wa sartu eh, wa sartu lum saa an takuuna ayima ba aw xayra aw xayra madxulin biha aw bi libtinaai man ilayhi tunsau fa saama xawlan duna usrin mooy benn na bañ nekk ci ab sëy wala ba mu ci nekkee it euh, séquwut ak borom këram dara wala sax ba mu séq moom ka topp ca moom te moom euh, àq ji da ko caa seetaan bàyyi ko ca ba mu toll attaque yu mel noonu subaa dañaa ko yow kon ñàkk nga sa àq bàyyi ko lu mel noonu moom aw kaana jadda tifli aw aman lahu aw kaana najla ammihi aw xaalahu wala mu mel ne ki nga xam ne maami xale bi la wala baayam ju ndaw wala nijaay wala dara moo mujj yor yaay xale bi subaa dañoo mën ngaa continuer yor ko aw laysa xaari nun lahu siwaa wala amul keneen ku ko mën a yor ku du yaayam aw aw irtidaa xayriha abaha wala keneen ku dul yaayam nunguwu la su boobaa dañ naan ko ah kon su boobaa nag su boobaa aw abatil murdiu an an turdia inda allati kaanat laha wala lu dul ne ka koy nàmpal dane mënuma koo nàmpale fu dul fa yaayam su boobaa nag dañ naan loolu nag su boobaa bu yeboo ñu ko yaayam mu yor ko aw kaana tummuhu aw kaana tummuhu wasiyatan ala aqwa riwaayatay imaamil fudala wala yaayam ci boppam dañoo dénkaane woon ci ne na ko yor kon su boobaa nag dañ naan ko donte yaa ngi ci ab sëy waaye sa àq day na di Eh, nekk yow ba léegi kon loolu lii mooy sart yi nga xam ne sart nañ ko ci ki war a yor xale bi moo xam góor la wala jigéen moo xam sart yi ñu bokk la ñoom ñaar wala sart yi jagoo góor la wala sart yi jagoo jigéen sart yooyu nag dañu bàyyi xel ne ginnaaw bi nga xamee ne nit ki yeyoo na ko bi sart yi dajee ci moom ba noppi nañ bàyyi xel ne mën na koo ñàkk te ñàkk ga la koy waral mooy benn benn ci sart yi manqué wala am sabab yu ko gaar bu dee sart yi ñu tuddoon leer na benn bu ci manqué nit ki day ñàkk àqam loolu leer na léegi nag wala am sabab yu ko gaar sabab ya bokk na ca benn waa ji ci boppam moom moo wax carrément ne àq ji ma am ci yor xale bi bàyyi naa ko subaa ñàkk na àqam subaa yaay ji masantay dafa teqali koog bàyyi ji moom moo war a yor xale yi bi mu waree yor xale yi mu jékki jekk daal ne sama àq ji ma amoon ci euh, xale yi wàcc naa ko ma soxlaatuma daal yor xale yi su boobaa kon dañ naan ko léegi kon kon yow sa àq ñàkk nga kon nañ ko jox maamam loolu mooy sart mooy ba ca jiitu ñaareel bi mooy wala xale bi nga xam ne dañ ko doon yor moo xam góor wala jigéen na dem na ba egg foo xam ne fa la war a yem maam yor gi ñu ko war su boobaa yor gi ko yoroon day mujj jeex ñetteel bi mooy ki ko waroon a moom ki moom àq ji da koo bàyyi ca baayam wala bàyyi ko yaayam lu tolloo am at wala diir bu yàgg boo xam ne day mel ne amu ci soxla su boobaa dañ naa ko yow ñàkk si àq lu ne yaay jeeg baay ji dañoo teqali koo xam nga yaay ji moo am àq ci yor ko mu bàyyi ko ca bàyyi ja am at wala lu yàgg yàgg jëliwu ko lijjantiwu ko subaa dañaa kon yow sa àq ñàkk nga ko ndax ba nga ko moomee jëliwoo ko woon kon daanaka wàcc gi nga ko wàcc wan ko ginnaaw day mel ne soxlawoo ko kon subaa dañu koy xañ na ci yi dox diggante nit ki àq ki mooy bu jigéen mu dugg ci ab sëy waxoon nañ ko subaa àq jam amoon da koy mujj ñàkk ci yor xale bi wala sax euh, baay ji ci boppam moo tukki ànd ak xale bi wala kilifa xale baay ji nekk fi waaye mag wala ki doon kilifa ci moom daal tukki na ànd xale bi tukki boo xam ne tukki tuxu la masalan tey tukki boo xam ne day jóge fi mu nekk dem feneen lu mel ne xale bi bàyyi daa jóge Sénégal dem bitim réew yóbbaale ko su boobaa ka ko yoroon day mujj ñàkk àqam bàyyi ji daa taqali kook yaay ji yaay ji yor leen bàyyi ji di tukki jël xale yi yóbbaale su boobaa yaay ji day mujj ñàkk àqam lu dul ne yaay ji daa mujj ànd ak bàyyi ji tukki ni moom ñu bokk fu ñu dem su boobaa du ñàkk àqam waaye nag bu fekkee da ko daa tukki tukki commerce nii rek di dem Dakar ak dikk wala ak ñëw wala mu tukki foo xam ne soriwut wala mu nekk foo xam ne mën na ñëw di di xool xale bi ko dem su boobaa dañ naan ko kon da nga koy bàyyi ci yaayam doo ko ko xañ moo su bil maxduuni saafara alwali li qasdi listitaani wa tanaquli fa daaka musqitun li xaqi alxaadina illa ida saarat hunaka saakina ibnu asim loolu wax tuxutuxuka mooy waajur wi wala kilifa xale bi su tukkee ànd xale bi yóbbaale ko su boobaa eh, yaay ji ko yoroon wala ki ko yoroon day mujj ñàkk àqam waaye nag foofu dañu sart ci kiy tukkee moom mu bañ fee bàyyi keneen ku mel ni moom keneen ku yem ak moom ci xale bi ak masoon xale bi kilifaam mooy masoon tey baayam ju ndaw moo fi kilifaam fi ñu toll te baayam ju ndaw ji bëgg ànd ak moom tukki am na yeneen baayam ndaw yu fi nekk yoo xam ne tukki wuñ kon su boobaa dañaa ko yow doo ko sañ a yóbbu nekk yéen a yem ci yéen a ci bokk yem ak su boobaa koy bàyyi ñu fi nekk yow mi dem nag moom bu la neexee nga dem waaye doo ko yóbbu <laughs> waaw kon Euh, loolu mooy sa sartub ñaare mooy sartub bi mujj ci wala sabab bi mujj ci sabab yi nga xam ne day dox diggante nit ak àq mu am ci euh, yor xale bi mooy bu fekkee ne euh, maam ji moo ko yoroon mu ñëw dëkk ak yaayam subaa dañaa ko ah, kon àq ji nga yoroon day mujj ñàkk da nga koy mujj ñàkk dañ koy mujj jëlee ci yow jox ko keneen su boobaa ndax day mel da nga bëgg a jëlaat joxaat kee da amoon ah, ñàkkoon àq ma nga bëgg koo jëlaat joxaat ko wala yu mel noonu kon yii mooy sabab yi nga xam ne ñoo dox diggante doomu aadama bi ak àqam bi mu des nag Euh, lii dox diggante nit ki ak àqam ndax ngànt la wala du ngànt dañuy wax ne bu fekkee ngànt la moo dox diggante nit ki ak àqam su boobaa su ngànt la dañee dañ koy joxaat àqam lu mel ne ku jigéen ki bi muy ñàkk àqam daa fekkoon mu nekk ci ab sëy ci misaal dafa nekkoon ci ab sëy ñu fase ko su boobaa moom yaay xale bi nekkoon ci ab sëy ñu fase ko su boobaa sañ naa jëlaat xale bi waaye nag bu fekkoon jamono ji mu yor xale bi nekkul ci ab sëy moom moo dugal boppam ci sëy bi maam moo dem sëy daal ginnaaw bi mu yoree xale bi su boobaa nag munta boole nekk ci ab sëyam ba noppi boo xale bi rawatina nag bu fekkee da nekk keneen yor yor doom xam ne juru ko yu mel noonu lañ ciy bañ moo tax dañaa ko yow kon nga koy eh, eh, bàyyi wala sax ki ko yaay ji ko doon nàmpal da ko doon nàmpal bis yàgg amatul soow mu ko nàmpalee ñu jël xale bi jox ko keneen kon xam nga loolu ngànt la su demee bis yàgg mu mujj amaat soow mu ko nàmpalee dañ koy joxaat xale bi wala lu mel dafa tukki woon tukki mënta ñàkk lu mel ne mu aji màkk wala yu mel noonu su ñëwaatee dañ koy joxaat xale bi wala mu génn génn bu mënta ñàkk génn faju ji wala yu mel noonu wala mu am fu mu mu yu mel noonu subaa bu ñëwaat dañ koy joxaat xale bi waaw moo tax mu ne euh, saa soo xam ne li rotal xadaana gi ngant la su ngant la dojee dañ koy jox waaw waaye nag bu fekkee la ko rotal du ngant maanaam jëmmi nit ki ci boppam moo ko def ci coobarey boppam su boobaa day ñàkk wa maa suquutuha li usrin qad bada wa irtafaa al usru taudu abada wa hiya ala al mashhuri la taudu in kaana suquutuha bi taswijin xamin bu fekkee nag la tax mu ñàkk àq ji ci coobarey boppam la su loola dañee du tax ñu joxaat ko mu amaat àq ci yoral xale bi mhm. kon loolu mooy di ci aj mu des masalab bu fekkoon ne kilifa gi daa tukki kilifa xale bi daa tukki ànd ak xale bi te ki ko yor munta tukki ànd ak moom boobaa ma wax nañ ne ki koy yor su boobaa day mujj ñàkk àqam ci yor gi mu xale bi wa xaysu bil maxduuni saafara al wali li qasdi listitaani wa tanaquli fa daaka musqitun li xaqi alxaadina bàyyi xale bi daa neewoon Sénégal jékki-jékki di tukki wala bàyyam ni ko fi sax bàyyam ji ndaw mooy kilifaam di tukki yóbbaale xale bi suba yaayam ji ko yoroon dañaa ko yokkat àq ji nga amoon ci yor ko day mujj da koy mujj ñàkk lu dul ne nag da ngaa tukki ànd ak moom dem fa mu nekk subaa nag subaa bu fekkee yéen a bokk fu ngeen di dem wala benn subaa mën nga faa ànd ak mu nekk fa kon su mel noonu loolu dañ koy dañ koy bàyyi xel bu baax a baax waaye tukki boobu balaa nit sañ a mën a tukkee xale bi dañuy sart ci tukki bi ñaari mbir ba ci jiitu mooy xale bi mu jël fa mu koy yóbbu na fa am eh, na nekk ci kaaraange gu doy ci jëmmee jëmmam ak alalam ak pas-pasam ak yu mel noonu ñaareel bi mooy yoon woo leen fay yóbbu na nekk yoon wu am kaara nga xam ne maanaam dana mucc ci lépp loo xam ne euh, day jural xale bi lor comme ni ñu koy sa euh, sartee ci leneen ibnu xaasim tëjee bunt bi ci beneen masala boo xam ne xaw naa laal lii mu wax ne wa yumnau zawjaani min ixraaji man min xiini liftinaai mahuma sakan min waladin li waaxidin aw ummi wa fi siwaahum aksu hada al xukmi mu ne ñaari way dencante yi nga xam ne euh, jamono ji ñi dencante dafa fekkoon kenn ci ñoom ñaar yoraale ab xale wala kenn ci ñoom ñaar nekk ak waa waajuram jamono ja ñuy dencante bu fekkee kooku masan tey euh, ndaw si bi ko waaj yi takk daa ànd ak ab xaleem wala waaj bi mu takk ndaw si daa yoraale daa ànd doomam ndaw si xam loolu waxu ci dara ba waaj takk andi ko ci kër gi ba séq ak moom mu xëy bëgg na ndaw si bëgg na waaye da ngay génn xale bi du ma dëkk ak moom wala sa yaay ji da koy génne duma ma dëkk ak moom wala contraire bi masam tey borom kër gi wax doom eh, na jigéen gi ne sa doom ji daal mënutumaa dëkk ak moom wala sa yaay ji mënutuma dëkk ak ci kër gi su boobaa nee na mënuta amu ci àq waaye nag bu fekkoon jamono jiñ koy takk ak di wéet ak moom loolu amu ci waaye dañoo dem ba ca biir mu indi leen ca kër ga mu dem jëlee doomi jaam andi ko wala mu jëlee yaayam andi ko su boobaa nag borom xam ci lañu wax ne su fekkee soxna si daa lu nguta dëkk ak ñoom am na ci àq lu dul ne ñee dañoo amul keneen ku leen yor su boobaa dañ koy mujj forcé mu dëkk ak ñoom loolu mooy masala nga xam ne tëjee na ko bunt bi euh, li ñu daanee nafa xadaa nag mooy euh, ñu xam ne àq la joo xam ne daa war ci koy def moo tax amul lenn luñ ko cay fay bu dee jimmi yor xale bi sa kër képp di ko lijjanti moom àq joo xam ne waajur wi wala kii yor xale bi da ko maam àq ju tegu ci loosam moo tax xale wax ne wala shay a li xaadinin wala shay a lil xaadini ala alal xadaana maanaam jëmmi yor xale bi képp moom duñu la ci fay dara moom waaye nag lu aju ci dundub xale bi moom moo xam ak lekkam ak naanam bu fekkee xale bi fa mu dëkk dañ ko ko luyeel waajur wee koy joxe bu fekkee xale bi ndox ma mi naan dañ koy jënd waajur moo koy joxe bu fekkee xale bi yére ya yére ya waajur moo ko joxe ba ci kuus yi ñu koy kuus la sax bu fekk comme fi jamono nii waajur moo war a jël xaalis bi di ko joxe waaw moo tax euh, xale wax ne walil xaadinati walil xaadinati xablu nafaxatiha wa sukna bil ijtihaadi ki nga xam ne moo yor xale bi sañ maanaam jamono ju nekk rek sañ naa fay ko waajur wi ci li muy defal xale bi bu fekkee nag moo ko defal coobare bu baax na waaye na xam ne waajur bi la war foofu li ci matax leeral mooy ñi nga xam ne dañuy teqalikoo seen soxna yi jàpp na bu ñu xasee teqalikoo rek diggante ba jeex na amatuñ soxla ci xale yi déedéet wax nañ ne waajur yi xale waajuru jigéen yi moo war a yor xale yi loolu leer na waaye dundub xale yi diir boobu waajur góor bi la war moo leen war di dundal di leen waddu di leen fa ñu dëkk ak lafa nekk lépp sañu tawax yaay ji ne ko euh, nañu ñëw ci man di añee ci man ak reere ci man di fanaan ci yow de du ko sañ lu dul ne daa saxal ak ñàkk ci moom ñàkk gu wéru ne mën daal awma lu ma leen jox wax dëgg waaye nag li ma am mën naa ko bokk ak ñoom bu aaru ndékki jotee mën nañu fay ndékkisee bu añ jotee ñu añ see fi bu rajo fare yow tañ gis ne loolu lu mën a nekk la subaa boo xam ne maye nañ loolu waaye bu fekkee da leen a bañ a dundal rek subaa dañaa ko loolu kat amoo ci àq force dañ leen war a dundal ndax sax njabootu bopp lañ euh, wayal borom kafaana wayal samul waliya dafu mu ani sabiyihi jamiiha lil xaadini ka ajri suknaahu wa sulxi xubsihi wa saqihi l maa wa xasli basii lépp loo xam ne day war ci dundub xale bi rek maanaam waajur yi moo ko waral foofu nag dañ naan bu fekkee am na masala yi fi am mooy bu fekkee xale bi diir biñ koy yor euh, dafa xaw a dëgër di liggéey di def ay liggéey yu sew sewaan dañ naan dañu xool mën nga ko jox misaal tey ci comme sant liggéey yi xale yi di gën a def ci dëkk bi yu mel ne jaaye ndox ak yu mel noonu dañ naan dañu xool liggéey ba muy liggéey bu fekkee liggéey bu am solo la bu am solo su boobaa bàyyi ji sañ na caa fayiku ka yor xale ba sañ na ko wax ne ko ah comme da lay liggéeyal te liggéey bi liggéey am na solo lam cay amee da ko fay bu fekkee nag liggéey bu amul solo moom taxuñ waxuñ ko wala bu fekkee ka muy liggéeyal yaayam la te yaaja aajo woo lam koy defal su boobaa nag dañ naan ko ah comme waajuramu jigéen lay liggéeyal te soxla woon na lam koy liggéeyal duñ ko ci laaj dara waaye bu fekkee keneen la te lam koy liggéeyal nekk liggéey su am solo soo xam ne xale ba mën na caa amee dara dañ naan ko lam cay amee na ko ko jox bu dee lu ñu koy fay la ak lu ñu mën a fay la ñu ne ko xoolal ay moromam bu ñu koy liggéey lañ lañ leen cee fay nga fay ko ko euh, kon loolu mooy li nga xam ne euh, daanaka mooy li ëpp solo ci buntu xabaana te euh, mooy li nga xam ne tënkoon nañ ko ci tomb bi mooy àq la joo xam ne ki koy def moo ko moom te nit ki du def kenn du ko fay ci warteef yu muy def waaye nag la ca topp ci ay dépenses ci dundub xale bi waajur góor wi la war donte yorutul yaay xale bi kañ la ko kañ la maanaam di bu dee xale bu góor moo war di ko defal lool di ko defal ba mu doon magum jëm ba doon mu kallaf su doonee mu kallaf ci ak wér mën a liggéey su ay responsabilité am dégagé wu na ci su fekkee nag dafa doon mu kallaf munta liggéey lu mel ne dafa laago wala yu mel noonu subaa yor gi ko yaayam doon yor dañ na waaye nag dund gi ci baayam la war bu ko defee bu dee ko jigéen it dañ koo war di yor ba tollu ci sëy buñ buñ sëyee bañ jox ko boroom këram nag ba boroom këram seq ak moom yor gañ ko doon yor jeex na bu ko defee nag su fekkoon dañ koo fasewaat bu ñëwaatee xëy na ab dundam day war day kon ne di war baayam waaye ak euh, ak ab yoram moom nekkatul loo xam ne day mujj nekk di gàllu ci loosu yaayam kon ci tënk daal loolu mooy di nga xam ne euh, tënkoon nañ ko ci ñaari tomb yi di jégalu lu baax nag ci euh, kàddu yeeg njuumte in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Ibrahim bind bi am na solo lool yaatu na leer na yaakaar naa ku fi bawoo tey moom lu ko lu mu fàtte woon ci nàmpal wala ci yorum yorum xale xadaana dana ko fàttaliku ku xamul woon tamit yaakaar na bind mënut a gën a leer lii kon daal xam naa ci tënk rek ñu bàyyi xel ne nàmpal àq la ci boo xam ne xale bi moo ko moom euh, waaye nag lépp lu ca war bàyyi ja ngir mu mën a nekk ca anam yu gën a mën a nekkee bàyyi ja la war fekkee na yaay ji du nàmpal bàyyi ja waaye fay ak ak ak yu ni mel bu dee yor xale bi nag yaay ji moo gën a yaay ci yor doomam moo gën a yaay yaay ci yor doomam bu dee ba am ca ngàntit la gën a sës ca yaay ja tey jigéen ci la ñuy tàmbalee kon daal ñu bàyyi xel xam naa ñëpp yu baale ko ne jigéen ñi ñu bàyyi xel ne kon euh, doomi jàmbur kenn du ko naxee weenu jàmbur doomu jàmbur kenn ko war na xeween jàmbur bu koy nàmpal daa war a nekk mu sës fa war koo nàmpal ndax la cay ajuwaat ci incidence daa bari fekkee ne lépp loo xam ne bokk ci dereet da ko waroon a araamal nàmpal mën na ko araamal kon kuy nàmpal war na bàyyi xel bu baax a baax euh, euh, kamuy nàmpal ndax ku war a nàmpal la ak ndax jot na mu nàmpal ko wala déet Cheikh Ibrahim euh, xanaa di la sant bu baax a baax ci tuudu daairatu muqaddamatul xidma di sant tamit mboolem ñi nga xam ñoo doon teewlu waxtaanu ñi fi teew ak ñi ko doon topp ci mboolem plateforme yi nga xam ne ñoo koy tuxal moo xam ay rajo la wala ay télé wala ay seen chaîne YouTube ji jiital nag euh, télé jumaa ji MK TV euh, di leen wax ne suba incha allah dinañ wéyal jotaay yi kii def waxtaan wi nag docteur Abdoulaye Diakhaté lay doon war a waxtaan jëm ci wàllu waqf waqf lan la nan lan mooy taxawaay waqf ci réew mi ak it yoonu murit nan la ci mën a taxawee ba gën koo mën a jëmal gën ko mën a jëmale kanam euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa